Guèye ibnu xalifatullahi fil ardi Mawlana Mohamed Seyni Guèye di ko ñaanal suma boroom ay nësëram ay mébétam ci lislaam yàlla na ko mottalee ak sago di nuyu yaay jullit yëpp suñu yaay soxna Bayam Diop ak suñu yaay soxna Mangan di ñaan suma boroom fekk seen fan te may leen yai ak seen njaboot yëpp tey ñaanal suñu yaay soxna Sagar di Faal yàlla yai njéggal ak yërmande ci moom defal ko itam suñu yaay soxna Ndey Jéem Tafsir Daouda Gueye suñu maam Aminata Diène ak maam Awa Gueye njabootu Sangali ak njabootu Nabila yi génn àddina di jégalu bu baax ci retard bi nga xamante ne suñu borom jaam moom nammeel rek la am waaye xam ngeen ne dogal yàlla moo ko moom kon nag amoon nañu yéene tàmbali mbir mi ci wàllu 21 heures waaye yàlla lii la nam ma kon OTV joxe leen ko noonu ñu ngi siy jégalu ñi nga xamante ne ñu ngi toogoon di xaar ñëpp. te xam ne ne jéem nañ suñu kéemtalaay kàttan ndax kat ñi mu war a dajale si plateau bi ay jaam yàlla la yoo xamante ne ñëpp lañ amal njariñ te ñëpp soxla seen jëm te ku nekk am loo war a bàyyi pour ñëw fii te ku nekk ñu war laa xaar ba nga yëg see ñu war a mën a tàmbali kon nag alhamdulilahi rabbil alamin bi yàlla dogalee lii ñu namoon si jotaay bi mu néew mu bari ñu am ko am yeneen nag andil leen waxtaan wu yéeme jëme ko ci niñ leen ko tuddalee ci affiche spécial plateau pour la descente spirituelle de la mosquée de la divinité nga xamante ne bés bu màgg bi nga Seyni fil adi joxe na ci ndigal waxoon ne mu dund baa mu ñàkk dund saa yu bi nañ ko muy ban bes bes bi nga ne sunu borom moo coobarewu wan maulana Mouhamed Seyni khalifatullah fil adi ca asamaaw jumaa joo xamante ne mu ngi nekk ci leer yàlla am yéene wàccee ko ci kaw suuf jox ndigal xalifaam ne ko topp ko bés boobu nag saa yu yegsee ñu war a feete anniversaire am yàlla dogal sanga bi jiital ci ñi nga xam ne ñooy waa jëf muy ndawi nabilaay kenn ci ñoom di magu jëf di kilifa si jëf fekkee démb fekkee tey mu ngi ci jotaay bi ñu koy wax Mouhamadou mustafaa Guèye docteur di militaire si domaine santé moom itamit ñu ngi koy nuyu di ko jox wàcc waayam waaye xam ngeen itam ne jumaa ji bi ko yàlla wàccee ci xalifaam xalifaam toog ba yàlla jox ko ndigal ne ko tabax ko tëbul tëb rek tabax ko ndax am na fu mu jaar toppatoo na légalement ay papier yoo xamante ne war na kaa may mu mën a tàmbali construction jumaa jooju ci kaw ndigalu boroomam ki nga xame ne sunu borom dogal na ci ñoom seeni loxo la kayitu jumaa ji jaar ba jumaa ji kayitam yépp sotti liggéey bi soog a door muy kenn si suñuy kilifa ci di ci cheikh di suñu papa elhazi, mbay juuf ñu gën kaa xam ci elhaaji mbay juuf ababacar juuf moom it mu ngi nuyu te di jox wàcc waayam te bu baax waaye it xam ngeen ne jumaa ji it bi yàlla dogalee it sanga bi ne nañ ko tàmbali xaaru ci état xaaru ci kenn ñi ko gëmoon toppoon ci ginnaawam te ne woon sanga bi loo joxañ rek ay wax ñu yékki bu laajee ñu teg ñu teg ñooñee nga xamante ne sanga bi bii mu ne liggéey bi sunu borom jox na ko ndigal pour mu tàmbali ko ñoo ñu ko liggéey ak seeni loxo yi bopp ci kaw ñuy joxe seen alal waaye di joxe seen ñaxa ñu ngi fii it toog ñu jël ci kenn rek muy sanga musa Wade nga xam ne ne El Hadji Moussa lay wuyo ñu bëri xam ko ci wakaam moom itam mu ñëw yor kàddu jëme ci ñi nga xam ne ñoom ñoo liggéey ci jumaa ji li ñu bëggoon nag mooy imam Mouhamadou Taye fekkee jotaay bii ndax giseenu ngeen ko ci affiche yi waaye comme moom da di nit koo xamante ne jëmm la joo xam ne ñépp a ko soxla tey jii dafa amoon fenn fu mu demoon ci ñenn si njaboot yi ñu mu waroon ñaanali jabar foofu mu yàgg foofa ba guddee ñëw ñu jéggal it ak koo xame ne sët la ci Mawlana Mouhamed Seyni xalifatullahi fil ardi si karkat ku ñëpp a ku ñëpp a di doomu Jibril salam Guèye di sanga salaam ànd ak ñi koy aawu ñëpp ku mel ni Alsaan colonel bu suñu papa Pam Mamour ak ku mel ni Moussa Ndoye ak it ku mel ni euh, li tax surnom baaxul tax nit ki da ngay turam Mamadou Samba ah Mamadou Samba ah Tamsir kon ñooñu lañ àndal tey ci bés bi am yéene waxtaan waxtaan wu yaatoo yaatu yaatu ñu ngi nuyu suñu papa El Hadji Ababacar Diouf papa Mbay Diouf kon ñu bàyyi laax ñi lay seetaan mhm. nga nuyoo ak ñoom mhm. bismillah alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa Euh, sëñ bi Faye euh, ñu ngi doole sant suñu borom tabaraka taala ci jotaay bi jotaay la boo xam ne li muy wax an li muy li muy jàkkaar lool baneen lu ko und bu ñu la nuyoo si turu ñi nga xam ne ñoo toog fii nga présenté di nuyu waa Wakaam bépp mbokku lébu waaye di nuyu Sénégal waaye di nuyu àdduna bi yëpp mm-hmm. jël nuyoo yooyu teg ko ci loxo góoru yàlla yi nga xamante ni mm-hmm. yàlla moo leen fi jiituloo ki nga xamante ne moom moom lañ bëgg a jëm si ay yëfam mm-hmm. maam borom Touba maam Alaaji Malick Cheikh Umar Foutal Cheikh Ahmed Tidiane Chérif maam Limaamu Laay mi imaam euh, Moussa wax léegi góoru yàlla yëpp ak képp ku ñu fàtte te ñun mu wóor ñu ne góoru yàlla la gu yàlla dox teraanga ak joxoon ko li mu man ñu ngi jël nuyoo boobu si njabootam ngi nekk wakaam si ñooñu ak seen njaboot ñu ngi jël nuyoo yooyu di ko teg seen loxo jël nuyoo yi tamit si ndigalu xalifa bi ku tedd ki ku mérité siis bi nga xamante ne moom la fi waajuram bi bàyyi muy El Hadji Mohamed Nabi Guèye di suñu xalifa di suñu sang ngir démb tax tey ñu koy wax Ah, li ñuy jëkk a wax nag wakaam ak mbokki duñ jullit yi ne jotaay bii jotaay bu rëy la bu baatine bu am solo la ah man bariwuñu ma gis si jotaay yi waaye dafa am lu tax ma ne dafa rëy mhm. am solo mhm. amal solo jullit yi mhm. yu amal solo juti jullit yu àdduna bi yëpp ngir kan muy jëmm joo xam ne leeru yàlla daf ko teg si dëndam si si boppam mu tasaaroo si àdduna bi yëpp mhm. ngir kan muy koo xam ne dafa teg tànkaam si suuf ne yaa ardu inni rasulillah mhm. bañ yàlla bañ werante beex jiiñante beex weddi bi mhm. mu ne ko uyool loolu ngir tax ku xam dina mën a uyu ku xamul nag dina jaaxle muy koo xamante ne ku yàlla jox la yonent bu yàlla jox cër boo xam ne dafa betti sang bi dañu daan wax ne kuy bette la moo tax ñi tëggoon si këyit yi jàng sil téere am na ñoo xam ne ba ilaa yawmi diin duñ ko gëm ndaxte xam nga nga sëgg sa téere hmm. nit na cëp sa kanam la yaa àddu nga bu nga siggi jàkkaarloo moom ne yàllaa ma yónni dina jafe pour nga gëm ko parce que dangay ngay bëgg a delluwaat sa téere ba pour xam na ko la ko yàlla yónni waaye am na loo xam ne boo ko xamul loo jàng-jàng si téere doo mën a xam kuy sang bi parce que kooku yàllaa ko rotal matal ko wàccee ko mu teg tànkaam si kaw suuf avec assurance ak certitude mooy kooku mooy sang bi Mouhamed góor gi seen ñu bokk si ñi nga xamante ne bi muy uyu oote oote bii si ñi jëkk dem uyu si ko la. bon am nañu man nañu wax. lu bari si ne la mu tiite la la mu bette jamono. Mhm. boroom kayit ñi jàng si téere yëpp dina leen bett. parce que ku bëgg a gis yëfam si biir téere. Mhm. dinañ la ko bindal waaye duñu doo gis turam. waaye xoolal ku ñëw ne yàlla ma wax lii. Mhm. nga wat atten ka weddi kan nga weddi. yàlla dafa sutura. ñu am rafet njott ak kontaante bu baax si jotaay bi ñu toog te óolu ko ñeme ko mhm. suñ njaboot bëgg nañ dégg tey mhm. am loo xamante ne tamit lu ñu mën a matal parce que du ñëpp sang bi dafa yaatu woon ba nga xam ne kenn ku nekk am nañ lu mu jëflanteex yow lu tax nga mën a wax ne da nga foog ne yow rekk la woon mu nit yàlla goo xamante ni mhm. yàlla daf ko jox loo xamante ni bari na kuñ ko jox mu murtat si diggante bi wala mu daanu si diggante bi foofu la li gën a gën a gën a nekk loo xam ne lu yéeme si sang bi la foofu lañ ko war a commencé bës ba nag bii ñëw la ko andi mooy xoolal nit am pension am saleeram bu baax nekk comptable di liggéey yor njabootam xëy la mu doon liggéey si Touba ga nga xamante foofu la commencé woon mu dëkk bu sell boo xamante ne yàlla foofu doon waxee moom ci lu ëpp uhuh. mu liggéey ba liggéey ba pare mu rendre liggéey ba uhuh. yàlla mu am yàqin yàlla la mu ko wax ne que demal toog wakaam xaar ma fa mhm. dañ wax nañu xoolaat bu baax mhm. jëmm ji ñuy wax kan la mhm. parce que lëg boo xoolul démb doo mën a xam kan mooy sang bi mu am yàqiin la ko yàlla wax si génte rek ñëw toog si njabootam fii jàkkaar jàkkaarloo soxnaam pour bañal ko àq ne que kat dafa yàlla dafa ma teg loo fii toog loo fii mm-hmm. te xaw ma toog bi ñaata lay doon si fan wala si weer wala si ay at mm-hmm. soxna su tedd ji ki nga xamante moo jël moo mooy mooy yaayu borom xilaafa bi mm-hmm. liggéeyu ndey ko jox loolu muy Mouhamed Nabi soxna soosu ne ko dem aussi longtemps que ngay toog fii dinaa toog ak yow si loolu bu metteex bu seddeex bu nax bon jëmm jooju óolu suñu borom rek Mm-hmm. si génte ak suñu compagnie gi lu ñu génte duñu ko gis suba mm-hmm. waaye yàlla wax ko loolu rek mu nangu ko gëm ko óolu ko def 14 ans boo xamante ne c'est une retraite spirituelle 14 mm-hmm. ans yoo xam ne dafa toog rek di xaar yàlla ma ne boo dul bo boo melul ni moom rek da ngay daw parce que bu jot mu gën a tàng gës gu jot mu gën a jaxasoo nga am kóolute sa bopp ne yàllaa ma toogloo loolu ku ne la ëllëg man de yàlla may na ma lii wala wax na ma lii wala jox na ma lii war ngay gëm kooku si 14 ans yooyu rek mu toog di xaar si biir 14 ans yooyu mu toog di xaar mhm. yàlla di jëflanteex moom mhm. di waxanteex moom mhm. mu am certitude que ne lii ko yàlla dénk nii mission la wax loogu ko waaye gis nga la mu amee grandeur daam mooy lu mu gis si baatin bind ko kooku kóolite suñ borom rek la kon foofu dañ fay ubbi rek noonu en attendant ngeen xam ne du jotaay boo xam ne bëgg naa ñëpp déglu ko. ñaan nañ ñëpp déglu ko. Mhm. waaye yàlla na àgg fu ne si xol yi. si baatin ak zaahir. amiin amiin yàlla motal lépp si amin amin amiin amiin amiin suñu papa suñu sëriñ Alxaaji Mbay Diouf dégg ngeen ni mu laytaayee jotaay bi dégg ngeen ni mu ibbee gannaaw nuyoo na waaye wane na ne waxtaan bi fi mu jëm kon nag noonu nañu jàllalee nuyoo bi itam ci docteur euh, Mouhamadou Moustapha Guèye moom tey. mu toogee fi ñaar ba ñetta ndax benn ku jaayante la woon sacrifier dundam ci biir mission bi ndawam gépp ci la ko jaayante lépp yi coono lu ñu ne nabilaay def nañ ko ci la si biir la ne dafi taxawee posture boobu waaye taxawee fi posture bés bi ñi ko sang bi jagleel jiital leen ci bokk ba saa yu ñëwee ñuy gérer organisation bi muy waa jëf mu doon ci père fondateur yi waaye it taxawee fii lu jiitu bés bi muy vendredi 7 incha allah dégg ngeen xadara juma bu mag bi nga xam ne am nañ yéene def ko ci mosque de la divinité waa kër cheikh al islam cheikh maulana cheikh Baye Niass nga xam ne ne moo njabootam ñoo fi war a ñëw euh, jaarale ko si cheikh Mahi ñas nga xam ne mooy xalifaam yàlla na fi yàgg lool te wér waaye jaarale ko ci représentant bi nga xamante ne it mooy rakkaam te nekk fii si Dakar di Cheikh Baba Lamine Niass ak ci muxaddamam bi nga xamante ne mbir yëpp ci loxoom la jaar muy Cheikh Ababacar Ndiaye kon Muhammadu Moustapha gay docteur ñu ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyoo ñi nga xam ne ñu ngi topp émission bi. Ah, asalaamaaleykum mbooloo mi. waaleykum Salam. yox onze bi kalimatillahi taamaati min sharri ma xalax. ñu ngi nuyu. jiital si nuyoo bi suñu Nabi ibnu fil ardi yi ci Sénégal de nuyu tam ñi nga ñom lañ bokkal plateau bi ki nga xam moko diriger di Nabi Fay. di nuyu suñu grand frère Mbaye Diouf ñom ñoo suñu grand frère ci ci mi lañ leen fek ñoo ñu tété lu bare bare bare bare Moussa maanaam moom ma moom moo ma dalal ci mbooloo mi fépp ma teg sama tànk ci mbooloo bi ak pas-pas bu ma am ak yëngu-yëngu bu mu am ci moom mii laa ko roye di nuyu itam ñi nga xamee ne surtout sang bi euh, sang sang salaam mm-hmm. ak mboolem ñi mu àndal ñëpp mm-hmm. di rafetlu jotaay bi comme ni ko suñu grand frère bi waxee Mbaye Diouf mm-hmm. di jotaay boo xam ne wax na ko sànq nee na jotaay bu baatine la mhm. wax na dëgg mhm. di jotaay boo xam ne dara waralul ko lu dul nitu yàlla boo xam ne suñu boroom da ko waajal mhm. mu dénk ñu ñun ñi nga xamee ne ñooy ndaw ñi mu dénk ñu ñaari bës yoo xam ne dañ ko war a ci kaw suuf mooy wàcceeg moom ñaareel bi mooy wàcc bi nga xam ne moom la jumaa ji nga xam ne suñu borom moo ko jagleel wàcc moom la ñu moo tax moo waral jotaay bii mu nekk jotaay boo xam ne jotaay bu baatine la xam nga jumaa ji sang bi mu ngi ko mu ngi ko gis si guddik àjjuma le 28 jeudi 28 juin 29 29 juin mhm. guddi àjjuma mhm. Mhm. mu xamal ñu a le bu leen wàccalee juma daf de oo ci de si début bi daf doon xamal bi lañ ko wante moom moo ko puus ne nañ ko célébrer dernier samedi bi nga xam ne moo nekk ci moo mujjee ci mois de juin ah. ndax comme vendredi day nekk jour boo xam ne du jour ouvrable dañ koy yóbbu mois de juin mois de juin ci fin bi ci fin bi mhm. ci inspiration boobu lañu amee mhm. xalaat mhm. ne comme ajuma mën na noonu nekk ajuma ñu ne ajuma boobu nañ ko dundal jéem fa def xadara juma mais lu jiitu loolu xalifa Gueye mhm. muy nit ko xam ne am pas-pas ko xam ne yep mhm. yëpp mhm. mooy dajale mbooleem tarixa yi nekk ci Sénégal gi yëpp ñëw ñu ñu ñëw ñëw ñëw fekk si lii est-ce que est-ce que loolu rek mooy yitteem bi mu si waxtaanee ak man ma ne ko ah mën ñaseen di mën nañu leen invité dama ne ko boo ci Cheikh Babacar Ndiaye maa ngi nuyu sama sëriñ parce que man ci tarixa bi moom moo ma jox wér moo tarbiya mooy sama sëriñ yow yaa ngi ci mbooloom Nabilaay waaye yaa ngi yor werde Cheikh jaarale ka ci Baye Niass. Baye ñas est-ce que. kon ça veut dire mbooloom Nabilaay daal du tënkul tënkul nit si dara. mën nga yor tarixa en même temps. sang bi nee na innamal mu'minuuna ixwatun. jullit yëpp ay mbokk lañ ay doomi ndey. waaw mhm. te mbooleem Nabilaay. mbooloo Nabilaay. mbooleem tarixa booy tudd ci Sénégal ñu ngi ci mbooloom Nabilaay. Mhm. Pambay Diouf a ngi dafa yor. ay ay ay ay ndongo yu bëri di leen jox werda ci ci ci tarixa cheikh mu la mu te nabilaay te nabilaay sang bi defe ne nañu àndandoo jaamu yàlla ci ñetti baat yi jub ak ragal yàlla ak sellal suñu borom def na may fil ardi mboolem tarixa boo mënti nekk mën nga jàpp sa tarixa te bokk ci mbooloo mi mm-hmm. est-ce que est-ce que sang bi rek ngay gis jumaam mboole ñaata imaam ñoo fi nekk yoo xam ne bokkuñu bokkuñu tarixa bari na tarixa yëpp a ngi si fii di jiite. murit ngi fiy jiite. Mhm. tijaan mu ngi fiy jiite. dëgg la xaadir mu ngi fiy jiite. dëgg la koo xam ne bokkul ci lenn mu ngi ci jiite. dëgg la kon sang bi ñëpp ñëpp la uuf. Mhm. donc bi bi nga xamee ne ajuma. Mhm. guddi ajuma la wàcc. ñu mën ko waroon sere aju ajuma. ñu ne nag nañ profité si ajuma boobu. Mhm. def fa xadara juma. ndeysaan moo indi xadara juma bi ñuy moo indi xadara juma bi. jub na ci xalaat. Mhm. te ku nekk xam ne ne. Mhm. xadara juma. li yàlla wax si ajjuma. ajjuma mooy sangu bés yi. waaw mu xamal nañu ne ci ajjuma am na si waxtu woo xam ne. lépp lu fa suñu borom loo fa mën a ñaan suñu borom suñu borom dina ko nangu. dëgg la diggante. tàkkusaan tàkkusaan jëm timis. dëgg la. te julit amul bad, bu muy tudd bu ëpp la ilaha illallah waaw si kawam si donc bu jaamu yàlla yi dajee foofu mhm. waxtu tàkkusaan mhm. di fa tudd baatu ilaha illallah mhm. kon yàlla na ci ci ci ci yàlla na ci place ba tamit ñu ne nag kon comme samedi la vendredi bi nañ ci taftal xaratul juma bu ko defee samedi ñu doxal événement bi ndeysaan waral xadara juma xadara juma kon dégg ngeen <coughs> Euh, docteur imam docteur la waaye imam la ci ci ci ci ñi nga xamante ne bokk naax ñoom corps de santé bi nekk ci armée non du ma docteur de infirmier la waaw mm-hmm. infirmier la <laughs> waaw ah, ñun docteur lañ ko mën a xamee ndax itam mm-hmm. <laughs> yàlla dogal na ku am jagadik yaram mm-hmm. sa xel lay dem ci moom ndeysaan muy def itam social bu yéeme yéeme yéeme ci xale bu war a dugg néegu góor mu defal la ko gratuitement te doo si fay dara dara dara yal yàlla yokk xam-xamam te barkeel ko kon noonu nañuy jàlle ci koo xame ne itam kër gi miin nañ ko ndax nam ay émission saa yu fi jaaree ñu bëree bëree bëri bëri toppaat émission boobu ngir am ci mbégte mu di mag ci ñun di kilifa si ñun waaye di ku fekkee démb fekkee tey muy sang Moussa Wade di alxaaji Moussa Wade mm. moom mii de yàlla dogal na ñaari bés yooyu ngeen dégg ñu ne mooy ñaari bés yi gën a màgg ci bési nabila yi te sanga bi joxe fi woon digal ne nañ koy màggal saa yu teewee benn bi yàlla seet doon ko waa organisation moom mii moo nekk président organisation jamono bi nga xam ne ne sanga bi Maulana Mouhamed Seyni jox na leen ndigal pour ñu célébrer wàcc teg Maulana Mouhamed Seyni xalifatullahi fil ardi mooy événement mars événement juin bi nag mu jox ko suñu kilifa yi nga xam ne ñooy ñiy jiite jëf kon sanga Moussa Wade dañu bàyyi la nga nuyoo wax ñi nga xamante ne ñu ngi ñuy topp bu ko defee ñu ñëw si sanga salaam incha allah. asalaamualeykum mbooloo mi. salaam. ñu ngi nuyu ñëpp. ziyaar ñëpp. waaye ah suñu xalifa bu tedd ba Mouhamed Nabi Gueye. ibnu Mouhamed Sine xalifatul xayri fil ardi. alkum na tas. na ci ñëpp jot. ak fu la laa mënti nekk ah sa dëgg-dëgg gaa yëpp ñu déglu nag fii ba États-Unis <laughs> gaa yi ñu ngi ñuy déglu fii ba Italie <laughs> gaa yi ñu ngi ñuy déglu boo dafa wax gaa yi lan la li xew lan la ñu ne eh lu bësam kii bësam la ñu ne wàcc rek jumaa ji lan mooy wàcc rek jumaa ji ak lu ko waral <laughs> la ilaha illallah ku ne xam na ne Mouhamed Sine Gueye خليفة الله في الأرض نانا خيات ونه أمنا يننت وين خيات بنيول من محمد سيني خليفة الله في الأرض ما سين يننت لا إله إلا الله وخذ جورينا ها آه. كنا ين دير بنيول من ما سين يننت نينا كلو تخ موخ لتخ لتخ نك بنتفي توغي دنج ku ko bëgg a xam ni tax dugal ci neblaay dugal ci euh, euh, euh, nakati yi xale yi def léegi nu ñu koy waxati encore waaw ci youtube ya yooyu nga def recherche tapé mosquée de la divinité nga déglu sang bi nga xool mooy kan nga xam mooy kan mën a xam foo jëm kooku la yàlla wàccee ji ci ndax muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. <laughs> kooku mooy borom Makka ak Madina borom penku bi moom la waaye saw bi tam am na borom yàlla nee na lépp lu ma bind am na peer lépp peer la lawlaa man mi nga xam ne ma sàkk lépp maa dul am peer moo tax mu bëgg lépp am peer yàlla loo bëgg a wax mu ne Muhammad day am beneen Muhammad fa laa jëm génn maa jël doomu Abdoulaye ak Amina tudde ko Muhammad noonu laa jëlee <laughs> doomi Daawuda ak Aminata Dieng tudd ko Mouhamad bon ñaari Mouhamad yi ñu am waaye gars yi xelu leen waaye kii ne yàlla tudd mu Mouhamad kooku mooy kan li adduna rëy rëy rëy rëy amul kan ku naan yàlla tudd na Mouhamad ku moom kooku yàlla wàccee jumaa yi ci moom mu ñu loo xam ne amul ci téere xamañu lu newul ci téere. xamal na lu ko si si te muy dëgg loo bëri bëri xam-xam ñu laata ñaata jumaa la wàcc si kaw suuf doo dem ah ah, ah, ah, ah amul ci téere ñaata jumaa li nga wàcc si kaw suuf nga tontu sa xam-xam doo dem déedéet kooku keneen ma ko xamle muy xalifatulaay fil ardi keneen du ko xam ko dul moom waaye ki nga xam ne nag moom la yàlla mujjee xamal ay dencoom mu andi denc yàlla teg ko mooy kooku mooy kan kooku mooy borom jumaa ji. kooku mooy ki yor ndigal li jumaa ji ñi ñuy liggéey moo ki ko yor lan mooy jumaa ji mu ne jumaa ji kaw asamaan la jóge wàcc naka ba ko jógee kaw asamaan wàcc mu ne ñaar yii la yàlla jëlee kaw asamaan wàccee leen ci kaw suuf terminé amatul beneen terminé amatul beneen juróom la yàlla santaane si biir juróom ñaar ñoo joge kaw asamaaw wàcc si kaw suuf bii kan la ko liggéey la maam aadama lan la xalifatullahi mu ne caabi ji a <laughs> ah, sa dëgg dëgg dëgg moo ko àdduna ñu dem wax daahuda yegsi jàlla bon troisième et dernier xalifatullahi fil ardi mooy kii tëj koy borom jumaa ji e jumaa su wàccee nan la dañ ko war liggéey am déet waa foofu lañ jëm après bon nag boobu waa alaana suy ilal balaax ñu départ foofu bañ nañ bañ a bañ nañu kaayaat ñu kaayatal leen nag waxal leen fan lañ départ Mouhamad Nabi mbir maa ngoog. jërëjëf kon mu ngoogu sanga Moussa Wade boo xam ne yàlla dogal na ci moom euh, ñu naan fasaax daf kaa am buy wax day hypnotiser nit ñi ci boppam pour ñu koy topp. yal na yàlla yokk sa fan te wéral la ah noonu nag nañuy def jaare ki nga xamante ne tey sanga salaam war a animé momdek bi si zikrullah moom nag sama kal la benn instant léegi nag moom mooy xool <laughs> ndax day wax wala dafay sikar bu ko fi wax arrangé <laughs> mu wax bu ko sikar arrangé direct itam mu def comme li olof wax rek ne train bu jibee gaar day corne kon rek sanga salaam ñu bàyyi laax kàddu gi bismillah salaamun min allahi ala muhammad seni Salamun min ya la muhammad seeni salaamun min allahi ala muhammad seeni salaamun min allahi ala muhammad seeni salaatu wa salaam ala عدد على خير البرايا ومنك يا وار يا خاديا مهتدي مختار من مدرين يا خاديا مهتدي مختار من مدرين ياتي في المغرب ياتي في المغرب أسأل من والي وصلاة وتسليما بلا عدد بجاه خير البرايا ومنك يا والي يا هادي المهتدي مختار من مدرين يأتي في المغرب أسأل من وار نبي لا إله إلا الله نبي لا إله إلا لا إله إلا لا إلا لا نبي لا إله ilaha illallah nabi la ilaha illallah Allah illallah illallah إلا لا نبي لا إله إلا لا يا الله الله نبي لا illallah nabi la ilaha illallah nabi la ilaha illallah allah bur bi yàlla jégal ñoo هاي لا لا نبي لا إله إلا الله الله بور بي الله جيغل Allah la la nabi la ilaha illa Allah Allah Allah buur bi Yàlla jégal ñoo nabi la ilaha illa Allah jéggal ñoo na bi laa ilaaha illallah Allah ya Rasulillah na bi laa la la la ilaha bur bi yàlla jégal ñoo la mi la ilaha la la allah allah seyduna Muhammadu Rasulullah alaihi salamullah Sayyidina Muhammadu Rasulullah alaihi salamullah jërëjëf sanga salam uh, zikrullah bi teey na dal na te ma ngi démb yaa ngi sos sikar yu demee mu doon hymne nationalu nabi Allah ñi fekkee démb bu ñu fekkee xale yi tey di yëkki zikrullah ñoom ñu koy yëkk seen bopp rek dafa toll ne xale yi fa mag ña tegoon seen tànk ñu nga fa kon jërëjëf sanga salaam sunu borom na yokk wéral baat bi te yokk kàttanal ànd bi seytaane bañ see am benn wàll yàlla dafa dogal ñu ñëwaat ci débat bi nga xam ne euh, fi nga xam ne ne sunu soppe bi sunu mag ji di El Hadji Mouhamadou Gueye Moustapha wax wax ju am solo ji mu wax ne yàlla bu wàccee juma rek woote na jaamu yàlla ci kàddu yi Mawlana Mouhamed Seyni xalifatullah fil ard dañuy ñëw si suñu papa Mbaye Diouf di gërëm it ñi nga xamante ne yàlla dogal na ñu ngi ñuy topp moo xam Facebook bi la wala réseaux sociaux yi YouTube bi ñoom Libas Gueye Jalika El Hadj Malick Gueye Ah, ñoom ñëpp ñu ngi ñuy topp Aminata Gueye waaw ah, ak suñu yaay soxna Fatou Diagne ah, Seynabou Meng seeni commentaire yëpp ñu ngi koy gis waaye yal na yàlla fayal ñu leen di wax rek ne sanga bi boo xoolee 1963 la dugg si toogaay ci ndigalu boroomam mu jóge Touba yàlla def ñaari at après ñu toll si 1965 ñaar si ñuy liim bokk ci liy feeñu sanga bi benn bi mooy yàlla yéegal ko asamaaw donnale ko leeru yonent yàlla insa ñaari at après toogaay ci 1965 mars 1965 waaye ci juin 1965 itam ci la sunu boroom tuddee sanga bi Muhammad bindal ko ko mbindam or kon leerug INSA mu ngi 1965 Nous dem 8 ans après ci biir toogaay bi yàlla wàccee mosquée de la divinité leeram ci guddik àjjuma jooju suñu mag ji wax di sanga Moustapha Guèye Ngéya nga xam ne ne guddik 28 jàpp 29 juin 1973 8 ans après wàcceeg leeru yant yàlla INSA si 65 si la jumaa ji wàcc ci baatin ci Maulana Mouhamed Nyutegati xalifatullahi fil ard ñu tegaat ci 73 ñu teg si yeneen ñaari at si la sanga bi wax ne sunu borom def na muy capitalu leer wakaam est la capitale spirituelle de l'islam kon da ngay dégg ne li nga wax ne ku yàlla wàcceel juma oona la si jaamu yàlla ginnaaw bi leeru insa si sanga bi waaye ans après muy 73 mu wàccee jumaa ji ñaari at la si teg toxal lépp si suufu wakaam wakaam doon la capitale spirituelle de l'islam depuis 1975 ñu tégaat si yenen ñaari at yalla ne Sangabi bi génnal nga wax fi ma jaar ak yow léegi ñu laaj suñu papa Mbay diouf laaj sanga musawa da laaj suñu mag suñu serigne Moustapha Gueye kañ ngeen njëkk a dégg sanga bi wax ci jumaa ji lu jiitu sax construction bi waaye muy wax si lu jëmee si jumaa ji te boobu liggéeyaguñu jumaa ji Papa Mbaye Diouf waaw alhamdulilahi rabbi alamin wasalaatu wasalaam ala rasulillah <coughs> ah bu ñu diggaatee si waxtaan wi nag foofu la commencé mm-hmm. nekk loo xam ne déggin yi war nañu fexe ba ñu dégg ko ci xol ak xel mm-hmm. ndaxte mbiru nitu yàlla dafa xaw jafe mm-hmm. dafa jafe génne mm-hmm. waaye gis nga li ma doon wax ci commencement bi rek nit yàlla bi muy sàng Mouhamed Seyni Gueye xalifa al Fayda kóolu teg suñu boroom moo taxoon mu doon dunde te kenn xamul ni mu doon dunde di bind lu ko yàlla wax mu wóor que ne lii yàlla ko wax dina ci teg wala mu am lu mu dajal mooy les révélations yi nga xam moom la bind mhm. ah at moom nga xamante ne nag moom la ko yàlla songe mhm. ne que loo ti def sant naa la nga liggéey ci màcc mhm. te xoolal fi ngay xamee ne ku goree si diggante ma borom la mu ne yàlla kat liggéey loolu na mu juma dama xamul ndax dina ma fi fekk wala du ma fi fekk gis nga foofu tamit

moo tax lañ ne la sax yàlla laaj ko ku ko xam yàlla boo ko laajee ku ko xamul danga koy sànq waaye sang bi bi ko yàlla toogloo nguuru toog bi si diggante 14 ans yooyu ci la lu bari feeñ avant 14 ans yi sax am na lu doon feeñ mu am kóolute parce que ñun suñuy waajur bu jigéen mu ngi dund ñun man dama juddu juddu ci këram. ci ci ci keppaaru sang bi laa juddoo. Mm-hmm. kër gu mag mm-hmm. waaw kër gu mag. Mm-hmm. loolu am naa lu ma si mën a wax pour ñu mën a agsi foo xam ne bu ñu ci doolewaatee dara. ku déggul ku déggoon bañoon démb sax boo déggee bañoon démb di nangu tey. parce que yàlla kuñ ko wax. boo ko refulee sa diggante sa borom la. parce que moom moo ne maa la gën a jege si buumu xol. tey am na ñuy ñëw di naan si xalif Tulaay Faal te gëmuñu. ci xol.

mooy lii dëggal li nga xamante ne moom la wax ne yàlla ko yónni ba ilaa yow mi diin tey mm-hmm. ba sëtaati sëtam comme Kaaba ga comme feneen fu yàlla samp mm-hmm. noonu lay deme ji mm-hmm. ndaxte yàlla daf ko wàccee toog loo ko bu noppi waxaa moom tegal kër lu ñuy wax la les révélations bii ngeen bind bi ñu bind nii kii suma ma tur gi si biir waaye damay wax la ma juddoo sa sa keppaaram xam naa ne am na lu tax tey ba ñuy ba muy oote ñun ñoo jëkk a ñëw uyu si ko mm-hmm. ñuy dund ak moom si liggéey boobu mm-hmm. ñeneen ñi di ñëw mm-hmm. am na ñeneen ñu ñu fa jiit si waa Géejawaay et consort waaye boo gisee ma dellu soit gannaaw tuuti pour ñu ñëwaat raxasaat tuuti certaines choses yoo xam ne xëy na kii bu waxee fii kii waxee nii kii waxee nii day tax kii bëgg a déglu te mu war a àgg si xolam day jaxasoo moo tax ma ne man jotaay bii jotaay baatin la parce que kenn ku judd si keppaaru sang bi bi muy oote ñun bi ñu ñëwee dafa wane suma photo si biir néeg bi. ne ne kilifa yi xoolal kii photo ma ngi nii ma nekk xale bu ndaw. bon je suis je peux être wax loo xam ne du affaire u caaxaan. nit nag boo bëggee yàlla def sutura si moom. da nga koy waxee si façon boo xam ne méthodiquement. dina gëm ne lii kat ndeke dëgg la. mooy li ñuy def nii. tey si tey bu ñu gisee yéen suñuy doom ngeen dem bay dund si xam si si leer gii. ñun dañuy doone sant yàlla xam ni am ngeen ndam am ngeen jaajëf parce que yàlla ku nekk fa am fu muy naani léegi la fi Cheikh Mamadou wax léegi dafa naa sax dama ko tëb si Baye Niass wasilaam et tout maam Abdoulaye Niass ñu kilifa yooyu góor yàlla yëpp waaye maa ngi profité si occasion bi di tudd koo xamante ne mu gën a tax ma gën a xam lii sang bi am man maa ngi def yenn étude yoo xam ne si révélation ak yooyu muy suma seexu monab bi Cheikh Sayid Omar Kébé boobu nga xamante ne wàññeeku na daaw te xam ne li mu def suma dënn bi mu ko si defee dafa dem tëju ak sang bi ak man ñu ne mu ne jox naa ko lii kooku ki ko jox loolu mooy imam kabir bari mu ngi wele nga rawalu mhm. sang baa ngi gém bi yéen xam mhm. ngeen si dara mhm. yéenay ñëw ak xalifa bi si xam si si bés boobu waaye loolu njaboot gii fi nekk ba ñii ma gi njaboot bi ñu xamee ne dama jëm si fii sax dañoo ma indi seen oto waaye képp koo xam ne jotee naa jotaay jaayante naa yow mhm. dama leen fu ma dajeex njabootu sang bi mhm. ak xalifa bi mhm. taalibe laa macha allah mooy suma sang loolu wax naa ko si si kaw fii ñi may dégloo tax may wax la waaw moom laa laaj Moussa mii ne que keroog ba leen sang bi joxee billet màkk dafa mel daf leen validé dama leen di respecté ba ilaa yow mi di moo njabootu sang bi

defar nit bañ ne Moussa Wade ku baax la mhm. ku set la ku liimaanu islaam la ku dul ja la ku dul tooñ jàmbur mhm. loolu mhm. moo gën a jafe si nitu yàlla si si si definu nitu yàlla loolu rek mën nañu si jël sang bi fa mu ñu fekkoon ñu am ay vingt ans consort si ay taxawaay taxawaay mu andi ñu ba ñu dugg si leer goo xamante ni ku si nekk fa nga nekk nit ñi am fet nañ njort ne yaa ngi si sellaange loolu ku ko mënul a naw wala ku ko mënul a gëm doo ko mënatee gëm ba laaw mi di tey bu ma gisee kenn suñu doom si suñuy sët ak suñuy doom ñu dem bay sikkar ñu dem bay ñaan loolu luy continuer ba tey bon nag boo gisee ma ñëw ba ne sa keppaaram laa bi ñu paree ñu daal di sargal tamit ku ñuy wax ko colonel alsan gi muy rakkam mu defal ñu statut mu defal ñu organigramme organisation sanga bi jumaa ji historique am si ay xeer lañ ko wër nga yàlla wan ko ko si baatin mu topp ko si escalier yi ba àggan ñi ngeen histoire bi toujours ñu wax ko fii waaw ba ñu koy jëkk def ñu fay def ñetti fanu géej mu nekk ay xeer yu ñu wërngël lu ñu bind si xeer ne bismillahi rahmaani rahim ak allahu akbar yooyu ñu fay dem mu fay jaamu yàlla bu bés mu oo waa secrétariat El ak El Hadj ak man ak colonel mu ne kat yàlla kat wax nag ma commencé jumaa ji waaw booba man ma yor commission des finances ñoom mu bi mu ñu waxé loolu ne yàlla nee na commencé jumaa ji dërëm nekku fi nak wayé néna na commencé puisque man ma nékkon commission des finances nit nit ku mu mënti doon kilifa bo nekké ci watam da ngay waxante moom di communiquer daf ñu jàngal communication sang bi bu mu daan wax je ne veux pas je veux que vous soyez des musulmans équilibrés xamé deug ak fen si loolu la dundé dundee si ñenn nañu ko am ñenn nañu toppoon loolu ba mu gisee ñun si loolu ñu ne ko ah sang bi géej kat statut la am mooy c'est un domaine maritime état bee ko moom ah léegi nag buñ ko bëggee tëb rek def si jumaa te légal te sanga bi il était tellement légaliste bés dinaa leen jox li mu doon bind parce que man révélation yi man la daan jox bu jógee si moor lay su man lay tegu ma dem photocopier ko delloo ko ko wat ba ba téere bi jeex téere bi melul woon nii maa ko doon liggéey fa mu doon liggéey man dew dondoy ak moor lay ñoo doon liggéey da daan am ay dessin yu ciy def lu mu gis lu mu wax gis naa drapeau lii ku jour bu ñu koy liggéey kenn du xam ñu ne koy liggéey maa ngi suma fa may liggéeyee samedi ak dimanche dew dondoy a ngi si place am fa mu nekk si direction moor lay nekk diggante sang bi kooso mhm. am na loo xam ne sax dañ ne sang bi lii boo ko waxee adduna bi day yàqu mhm. si ah. si ay révélation si boobu bi mu ñu waxee affaire liggéey affaire jumaa ji ñu nekk nag il faut ñu jaaree ko si yoon parce que boobu colonel Alassane Gueye xam nga ku nekk xam na mhm. administration xam na lépp moo ñu formé mhm. alors am ñu dugg si biir ne ah sanga bi ñii dañ la bëgg a légaliser mhm. yow tu yàlla nga xam nga toujours mbooloo day am ñuy xam ne kii ndeysaan suñu maam suñu yaay ju tedd tan sagar bu daan déglu ña fay ñëw mu ne sanga xale yi moo tax xale yéen ñii xale yi dama leen respecté yéen ñi di liggéey lii tan sagar daan wax ne sanga xale yii ñooy dem a ñëw di liggéey ñii ñëw fii di yàq seen xel sa xel si ñoom na si def attention xoolal boobu wax du tey de boo gisee ma ñaan leen pour dellu soit tuuti si gannaaw pour ngeen gën a xam lu bari am na solo waaw lool sax dinañ ko utal émission boo xam ne waaw dinañ ñëw ba sa kër waaw toog ak yow waaw détaillé yow loolee lépp voilà léegi nag ba mu ñu waxee légaliser pour pour mu parce que dafa légal moom. xam na ne nguur ak nguur xam la moom cëram ak si la ñëwee ndëkk ñu daal di defar statut. bi ñu nu ñu ko def ñu defar statut. statut bi man mii Mor lay ak Iba monsieur Diop. Ibrahima Diop yàlla ko yàlla defal. sifaawu voilà ñun ñoo dem. ñu def ñu enquête boobu Jean Collin xale yu bari juddu ñu sax Jean Collin mooy tubaab boobu nekkoon si mhm. wetu euh, euh, Abdou Diouf mhm. si lañ jël si lañ amee terrain bii li nga wax moo si am xëy na tey nguuru abdu juuf la ñu amee terrain bi la sanga bi amee kayitu legal waaw ci tabax jumaa ji foofu ci booru géej léegi ni ñu def parce que dañ ne ba lañu ñu fay tax jubaa jafe juma foog ñu jox ñu ko waaw bon terrain bi légalement lañ ko laaj mhm. bi mu ñu waxee loolu ñu wax ko si liñ ko xamee mhm. mu d'accord mhm. ñu ne nag am na ku ñuy wax Issa Samb bi jiw Issa Samb bi si historique u jumaa ji la bokk parce que këram la ñu joxee terrain bi de mhm. si kër joo Issa Samb bii bu wakaam moom moo ñu boolee le ministre Abbas Ba le ministre de l'urbanisme mhm. jamono boobu ku ñu wax Abbas Ba mhm. man ak Mor Lay bii si kër Issa Samb lañ ñu boo joxe. la joo wakaam la ñuy wax joo wakaam waaw te mu gaañu génn na te mu génn àddina jamono yële waaw si këram moom xaritu ministre bi la woon bañ ko waxee moom moo de rendez-vous ñu daje sang terrain bi pour wax la euh, grande spiritualité bu te kër dit. Euh, ji mhm. laa bëgg ngeen gën bu ñu mhm. ko mhm. am nañu bari ñu dugg di wax mais man mii ko dund a wax ah, ministre Abbas ba dund ba ko man la ministre fekk Issa moo nekk fa am ku ñuy wax sang bi. Mhm. boo gisee liggéey ku mhm. bëggoon sang bi la nag Issa moom. Mhm. dafa am ñu la soxla ñu ñëw toog ñu ne ah Issa moo ñu woole woon ak yow kat. mais ñëwagul mu ne waa nañ def réunion bi tout de suite. moom Abbas ba boobu. ñu dem expliqué ko nekk nag dafa am nitu yàlla bu mag buy def ñetti fanu géej ci géej. te foofu dañ koy mën a fermer boobu ko matérialiser en mosquée. gis nga Mohamed Nabi. Faye na ngeen a jàppaat mission

Mm-hmm. parce que ba ñu nuyoo ministre bi ba lay fii déggoo ba sa am du suñu ngóor a ñun ñii martabaam la parce que teene géej gi ku ne yow bokk nga si ñi ko lijjanti mm-hmm. buñ la dégloo rek nga xam ne ma martaba sang bi am na ku la puus waaw mm, am dañ ko wax rek mu génn carte de visite tam monsieur le directeur de l'urbanisme Landing Sané veuillez mosquée à la baie de Ouakam de 40 ans 50 ans. Ah. monsieur Landing Savani, mhm. veuillez recevoir de responsabilité avisé ministre bi vous premier ministre. Ni le directeur sur place C'est Isa. C'est de visite b déménagement ménages mhm. l'édification d'une mosquée à la baie de bay yéeg président bi mas nay ñibbisee jóge voyage gis ñuy tabax foofu une mosquée mu oote conseil conseil des ministres li kañ dañ ko jox mm-hmm. parce que rëcc na mm-hmm. xam nga Moussa na nga ne moom moom la yàlla mbirale woon ay mbiram si Firawna loolu ngay xoolee ni yàlla réeréeree bu mm-hmm. tuuti autorité yi si jumaa ji pour mu sam noonu la jumaa ji kii fekk statut bi bi ñu koy defar man mii président des finances ministre de l'intérieur commissaire benn commissaire recevoir. pour ñu am statistique man Mor Lé ak Ibrahima Diop. def nañ de temps ndeke gis nga euh, état ni mu ragalee ndawu yàlla. ndeke indi nañu fii benn inspecteur de police trois mois ñu may xool. yow waaw. maa ko xam keroog ba de surveillance comme ma laaj. ñu demee deux heures de temps mooy enquête waaw ndax doo leen photo euh, daal di ko lu ne la paree mu ne ah lii yëpp ñu wax si genre leen waaw parce que surveillé nañu leen de près mais vraiment vous avez de bonnes notes mhm. je waa ja doon jaa ji waa ji ñu liggéey loon wakaam sax pour ñuy surveiller waa ji ñëw na si bureau ne ma la xàmmee ngi ba nga dëjee pas besoin de connaître mhm. li nga sang bi dugg gi mu doon dugg daf ñu ko daf mhm. moom du course la la jox daf la wax ba di la xob bi di xob bi

ñëwagul woon ci Ablaye Wade la commune bu baax mais projet baa ngi woon am ci Abdou Diouf mm-hmm. xam nga l'état c'est la continuation italien yi moo ne vous aurez avec votre mosquée vous aurez une très belle vue mm-hmm. dem na ba suggéré ñu ne ak euh, ministre de le directeur de l'urbanisme dañ ñu waxante moo tax mm-hmm. mais dañ ñu waxoon li leen jox yokk leen si ngeen gën ko def ay garab wala mais xaw ma nag ça a suivi mais ñoom ne nañ foofu site bi ni mu rafetee il faut pas que ngeen pété les flancs ba ñu koy ba ñu koy agressé. Mhm. loola sa jamono mat na 40 quelque année. ndax mhm. mo wax ko lepp passé na. deug la bon loolu bo gisee ma wax ko pour nit ñi di wax ci réseau yéex yooyu. Mhm. ñu def attention aussi. loo bokkul dudd loko bu ci wax. wala bok nga wax ma bu leen ko jangalé ni bu ëllëgee di ngeen xam ni ñi def ba mosquée bi fofu foofu. té mosquée bi bo gisee mu amaat baatit mooy boo tolloo si kaw xam ne lillaahi moo nek nekk. am déet. ñaari sóoróor yi. waaw ndax coupole bi lillaahi la. yow mii la di fay. bu mm-hmm. fekkee ne nekkuloo ci règlement ak liñ yónni sang bi. Mm-hmm. ci ak njub mm-hmm. ak sellaa kooso. boo fa ne allahuma dara du fa nekk. dëgg la yow sa jëmmaay tax mu nekk allah. dëgg la wakkaam gii yàlla wax ne sang bi wax ne mooy pays yu. mooy capitalu leer wakkaam mooy 66. du allahu. boo gisee sang bi ñu daal di ko ñu daal di ko batale ya sóoratu yaasin. 3 fois 6 di 18. am déet 66 boobu 6 fois 6 du 36 sawatu yaasin moom ndabi laa fu ñu am si kër yi rek war nañ ko mën a jàng mhm. bon pour ñëw si bés bii di ñëw muy jumaa ji mhm. boo gisee yu dinañ am jamono yoo xam ne damay ñu gën ko détaillé mhm. ngeen gën a téye ci lu gën a wóor parce que gis nga bii may jox lii këy daa leen jox ni mu doon bindee euh, ku méticuleux am na communiqué boo xam ne sax moo ko bindal boppam pour éviter des autorités religieuses et consorts. Mhm. mu nga fële kër ga. am nañu ah. Mhm. donc yooyu yëpp la ko daan si xam ne kii. Mhm. am na lu mu lu ko óoroon. si ne day nitu yàlla la. mission bi. yàlla jox gëm na ko. bind ko fii. la nekk si biir yëpp boo ko xoolee si baatin. parce que tamit lijjanti ko baax na trop. waaw. ku dem ba gis boppam si weer mhm. gis boppam si jant ba noppi commencé si faatiha xam ne loolu kii ni lu nekk yàlla jox ko ordre de mission mooy lii mhm. dama si doon liggéey benn nitu yàlla benn sufi mu ne ma gis nga téere bii ku ko jënd def ko sa kër di ko xool bés bu jot dafa mel ni yaa ngi toogaa sang bi ba léegi dëgg la dafa nañ wax nit ñi yàlla rek su ko defee nit ñi gëm sang bi léegi mhm. ndaxte wagaam tey li ñu am kenn amu ko si àdduna bi ku wàcc si suuf le pôle de la spiritualité lepp lu yalla don dogal ci aduna ci jamono sang bi ci sang bi lay jàpp sa dëgg la mu les hommes les anges euh, agiront pour mon compte sur le golop waaw est-ce que loolu lan ngeen ko déggee mhm. il faut que yalla ku ko xam nga nga ko mën a wax de ange yooyu bu fekké dañ auto malaka la auto day rey nit du day rey nit ñu malaka la te wax bi dañ ko nangu dégg les anges agiront pour mon compte pour le globe terrestre mooy malaaka yi

waaw bu ñu yemee nit ñàkkee gëm tamit si suñu wax la mm-hmm. waaye ak katan mm-hmm. góor gi mm-hmm. li mu ootee day si jamono aadama dawda mu ne moom mooy ñetteelu xalif degg naa nag te nañ def attention si martaba nitu yàlla dégg naa kuy wax naan am na ku naan ñetteelu nitu yàlla la boo xamul yàlla doo mën a wax safeyu sang bi boo jàngee si téere mën nga weddi mais sa weddi na nga ko téye màndu sinon martaba nitu yàlla du moom mooy jëmum dem la lay dóor doo ko xam parce que da nga da nga nangu wa anal faddala bi yeddi laaxi yuti man yasha yàlla bu la mayee nga am xam-xamu këyit ba pare nga bëgg a weddi lu yàlla ku ne la yàllaa ma wax li te mandoloo si da ngay escanté lu yàqu ñaata nit a yàqu seen mission sang yàlla na yàlla motal lépp boo gisee xale yi ma leen di gën a góorgóorloo uh-huh. bu ñu leen gisee toujours dañuy xam ne ñun ñii da ngeen ñu remplacer uh-huh. yéen tamit dafa am ñu leen di remplacer waaye nañu waxee façon boo xam ne uh-huh. nit ñi dañ ko mën a dégg mën a dugg seen xol man de tey ku ma nekk soo bokk bu ma sañoon bës boobu waaw ñaari bës nitu yàlla bu mag ku yàlla dimbali jox ko ngóora jox ko benn bàddil ko si maxrifa muy bàyyi ñas

xoolal ni mu yàgg yàkkamti léegi dama bëgg bu ma ko jotee ñoom nga yee yi dinañ fay dinañ joxe cinq cent mille ñoom mu dem bi fay joxe un million ah. te looloo am ba affaire bi am parce que buy def am milliard mm-hmm. mënuñu ko woon garder si cotisation mënuñu si woon dara xoolal li mu ni man ak moom ak yàlla la ma Babacar kat léegi kaye bi dama koy jël mm-hmm. bu ma ko yoree nit ñi lay xam ne xaalis bi mu kii bii poche mm-hmm. pour kër gi la bii poche pour jumaa ji la loolu la dundee ba léegi masuñu laaj dërëm te mas ko juwaat la poos mos ko juwaat kon dok mu ngi noonu suñu papa Mbaye Diouf dégg ngeen jërëjëf jërëjëf yàlla dogal mu doon koo xame ne ku fekkee la ndax ni muy waxee rek <coughs> ku ko topp da ngay xam ne jëmm ju fekkee mooy wax eh, te booy dégg ci ay waxam it day bëgg moom li mu nàmpa te yëg ko si diggante maax boromam ñëpp ko te yëg kon benn laaj boobu la ñu sampoon ba tey sanga bi Maulana Mouhamed Séni jamono bi ngeen njëkkee dégg mu wax si jumaa ji te boobu jumaa ji taxawagul Mouhamadou Moustapha Gueye ah jërëjëf vraiment di rafetlu suñu waxtaanu cheikh bi mhm. yëngal nañu si si biir si biir ñu lu bare bare bare mhm. ñun nag bi ñuy njëkk dégg sang bi di wax si jumaa ji mhm. sang bi bi muy wax si jumaa ji dafa njëkk di ne suñu borom war na ma benn bateau bu am ñaari cheminée loolu daan njëkk di wax dans les 77 fekk ma fi nag parce que man maa ñëw ci mbooloo mi en 89 mais mm-hmm. mm-hmm. dégg noppa moom ak borom voilà mm-hmm. soo daan déggul kaset yi da ngay wax suy wax si baatin yi da nga naan da nga dégg mu naan suñu borom wan na ma benn bateau bu am ñaari cheminée ñaari étage waaw non waaw bateau bu am ñaari cheminée ñaari étage ñaari étage ah noonu la ko daan waxee mais li ma man bi de façon bi nga xamee ne man gindeeku naa ak si mi en 1989. Euh, suñu soppe boobu Sidi Abdou Ndiaye yal na yàlla yokk leeram. su ma juumalee c'était en février 91. Mhm. février 91. Mhm. boobu ñu woon ci weeru koor. Mhm. ñu moom daan téyel parasol sang bi. bi ñu jullee weeru koor bi ñu jullee naafil ba pare. dem kër sang bi. bi ñu demee kër sang bi bu ñu àggee foofu dañuy def fàtte ñetti salaatu fàtte ñaan doog a dem. bi ñu ñaanee ba pare ba bëgg dem. mu ne sang bi dama bëgg nga dafa am benn baat bu ma la bëgg a nettali mhm. sang bi ñu ñëpp ñu teg di dëkk déglu mu ne ko biig suñu borom dafa ma wan mhm. jumaa ji la nekk ci géej ñu du ko mhm. liggéey mu ne ma dégg ma gis mbooleem catégorie yi nekk ci mbooloo mi yëpp maa gis si biir mbooloo mi mu ne gis naa xale yi gis naa maire yi gis naa jànq yi góor ñi ñëpp gis naa leen ñu ngi raj raj loo mu ne ma dégg benn baat bu naan mbooloo mii ku ci raw sa moroom fee ko rawee allahu ji ci jumaa ji ci liggéey boobu ci raw sa moroom fi nga ko rawee hmm, hmm. bi mu àggalee baatin bi noonu suñu Moustapha Ka tamit moom tamit fal mu ko foon moo yëkkati kàddu hmm, daan na bi comme li Sidi Abdou Ndiaye wax nii est-ce que duñu commencé di cotiser di di di di denc mu ne ko xam nga sànq dafa maandu lii ab Abdou Ndiaye di wax noonu moom dund am na lu mu si dund lu bari te te ci waxuñu ko mu ne lii ab bàttin la bu ñu leen junj da ngeen koy takk ngeen denc ko bu yàlla defee ngeen fekkee ñuy liggéey jumaa ji na seen xel dellu ci li mu leen waxoon ngeen farlu ah, bay ñoo ñu dem fekk boobu ne. Mhm. février 91 boobu noonu. Mhm. juin juin 91 20 juin 91. c'est la bidia générale. 20 juin 91 ñu sommes ci décembre 91 C'est si la sànq bi oote assemblée générale pour ñu préparer géej. Mhm. premier assemblée générale bi. bi assemblée générale le 29 janvier. 92. c'est la def première pierre. commencé jumaa ji le le 20 mai. Mhm. Mhm. bi ñu defee premier pierre pose premier pierre bi après si lañ commencé def briques yi. Mhm. ba le 20 mai si lañ tàmbali jumaa ji. est-ce que foofu la mbir yi jaar. foofu la mbir jaar. ci kon wax jàngoo loo xam ne ne dañ koo dégg si jumaa ji. te liggéeyaguñu jumaa ji. muy wane ne kon sunu borom ay mbiram si kiim ka yenqe. dana am ñeneen ñu mu yenqal. même mbir mi ndax li nga nettalee suñu sëriñ di papa Abdou Ndiaye xanaa ah, sanga Moussa dégg naa ñu wax ne moom papa Abdou sax bokkoon na si ñi gis jumaa ji te fekkew mhm. kon itam dañ lay laaj laaj boobu nga baaxee ñu si li nga jot a dégg lépp sanga bi wax ko si jumaa ji mhm. te boobu jumaa ji taxawagul nag waaw li nga si dégg lépp sa dëgg dëgg dëgg li ngeen wax moom nit di ko fi jëlee damay bañ gars yi wax ba pare may waxaat muy nekk répétition gars yi jaar nañ fa ñu war a jaar waaye Mouhamadou Moustapha wax nga wax bu rëy sa biir wax waaye su mu xaddam bii waaw ba nga sa def Diouf doo nit xamal nga nu lu rëy jumaa yi nan la taxawee nuñ ko taxawala fuñ ko taxawala xamal nga nu ko sant yàlla bu baax Abdoulaye

la ca mooy sama sëriñ dafa wax ne. ñu wax ko jumaa ji ni koy liggéey wu ne man du ma fekkee liggéey jumaa ji. moom papa Abdou Ndiaye. mu ne du fekkee liggéey jumaa xool li kii wax bi mu ko waxee ak bi muy wàcce liggéey yàggul ku ko waxoon ne ko doo ko fekkee. ku ñu waxoon ne kii wax li du ko fekkee dañ naan eh. waxal ndànk li nga wax dara amu ci. waaye moom mu xamal ñu ne man du ma fekkee liggéey jumaa ji. la ilaha illallah mm-hmm. Mm-hmm. te bañ commencé liggéey jumaa ji ba tëb tuuti mm-hmm. am na ñu koy gis muy liggéey si ci baatin la ilaha illallah bi lay si la ilaha illa huwa kon ba jumaa dañ ko liggéey ci baatin ak zaahir ah doguma la ah, xam nga li nga wax nii li mooy firndeel bi gis nga Sidi Abdou Ndiaye yal na yàlla yokk leeram amiin biñ koy biñ koy jullee biñ koy jullee ci biir feebaram sax ci biir feebaram dafa man dama mës a benn jour ma ñëw ci fekk këram mu ne ma kaay dem kër sang bi ñu dem kër sang bi mu ne sang bi man day ñaan naa borom. mu bàyyi ma fi mu tëleel si mission bi. wante ñi may yónni ñëpp daal. kenn du ma indi réponse est que. billaahi. bi loolu jàllee gis na bi mu génnee àdduna bi ñu ko tëralee si jaag bi nii nañ seetaan kase ñu déglu ko sànq bi ne dafa bi mu waxee si moom ba pare dafa ne sikk amu si ne kii mooy Seydina Jaafar. jaafar jaafar mu ne sikki amu si ne Jaafar loolu la wax. borom drapeau kon musaanee doon na dellu si di liggéey jumaa ji day day. fa laa jëmoon lii waa ji marché sur la langue foofu laa jóg il marché. eh bon sur ma pour mu leer. Abdou taxu ñu jóg waaye entre parenthèses damay ñëw si. Mhm. dafa wax ne moo taxaw taxawaayu jaafar fa laa pour xamal gars ne. loolu moo waral muy fekk liggéey mhm. ndax jaafara bu wàccee malaaka yi la àndal yeggali mission mhm. Sidi Abdou Ndiaye bon kazalik lu bokk niroo mhm. ma ñëw jumaa ju commencé na dañ koy liggéey sanga ne woote naa réunion fan la allah fan la bu oote réunion ndooyaat mu ne sama borom xamal ma ne mission ah, jumaa ji وهو من دوكم هاسي اللي جاي تا لا اله الا الله لما داخل ماي تداخل مسا 14 مليون فرا ما في نك تي فون خنا عم بمك كم يوسف جاي وايه يلا خبر لنا منا بو كماسي بو تاو 14 مليون فرا 14 مليون فرا تي لو خمنا اي مليار دولار دفع ايه لو اي مليار دفع كاكو يدير nu mu déparé quatorze mille francs quatorze mille francs lu mu mën ci ci ci ay milliards dara war na la mën a xamal ne kon kii wax wax ji yonent la jumaa ji bu ñu koy estimé ay pour milliard la fu mu toll da koy ëpp quatorze mille laa yor bon kii wax loolu kan la pique ak pelle lañ ci jënd mu ne bon nag pique ak pelle mu ne pique ak pelle lañ ci jënd jënd nañ commencé bon nag jeex na ana suuf seen béton bi ñëwagul ana ciment bi ñëwagul ana fer bi ñëwagul ah cere joo gis am na ñeex bu koy siim te ñeex bu koy siim ba koy siim lu nekk nga sa biir ñeex ma mooy wax ji déggoo ma dawee yàlla gaay na li cere jële ñeex bi ñëwagul quatorze mille francs ci ay milliards ñu ngi commencé du taxaw koo wax loolu mooy kan mu ne yéen waa organisation jël naa liggéey ba tekk ci seen loxo ah sama gaynde yaa ngi de. kan ñoom Pambay woon. ñoom Góob ñoom Njóoba Jóob. ñoom Mbay ñoom ah, ah, ah, a Ndoye. Adama Diouf ñoom Adama Diouf. est eh, jum ba ci ñoom Malick Sarr ñoom Doussard ñëpp a ci mm-hmm. yéen waa organisation. Mm-hmm. dénk naa leen liggéey bi. Mm-hmm. ku doon organisation ku naan El Hadji Moussa Wade. wax ni. ah kon moom la. Ah. le président de fédération de football de Kaolack. kañ la ko doon nu mu ko doonee. fu mu ko doonee sang bi moo ko fal ci kañ. Mhm. ba gars de direction en 1983. ko sang bi signé mu jàll. Mhm. def ko directeur def ko président bu boole ñaar yëpp téye ko ci daal kàttanu yàlla ak ni mu àndaloon ko. Mhm. sama gars yi ñoo ma dooleeloon. bëccëg lii bu neexee lii. ah ah ah ñoo téye ca mu neex. ma leen di gërëm en passant. jërëjëf départ nañ de. jumaa ji war na taxaw. naka yi ne eh, defar nañ brique yi. gars yi calculé ne brique creux brique plein temps la brique creux temps la acrotère bi temps la eh, mu ne temps la mu ne commencé leen. la ilaha illallah. gars yi commencé brique ah sama gaynde gaa ngoo kan Cheikh Abdoulaye Diouf moom seen Thierno Diouf Lambaye moom maam borom Touba Cheikh Abdou Diouf jël ko en main na ko am naa sama mbekk bu ñuy wax Ousseynou Diouf day dóor ay briques gars yi naa vibré mu leen non non non non non moo mooroo vibré <laughs> Ousseynou ñëw ànd ak Abdou muy dóor Abdou dóor muy dóor Abdou dóor léeg-léeg ñun sax ñuy dóor waaw ñëppay dóor. sama gars yi ñëpp doon dóor. parce que dóor dóor la. woon nañu yoon wi ñuy dóor. brique cinquante lañ ko tuddee. du brique ndaw. te yow de benn brique kilo bu na gars yi bi ñu ko posé def na vingt cinq kilos. dañ ko posé mu def vingt cinq kilos. li may wax moom dama fekkee. fekkee nag. eh yi ñoox brique yi. te brique ni ñu koy brique da ngay jël buretu suuf natta buretu suuf këppa départ jël buretu béton këppa dem andi saako ciment teg ci kawam. 100 pour cent. 100 pour cent bu ëllëgee boo yeewoo ci kaw ngay jaar. ci kaw ndox li ba yow ci kaw brique yi ngay jaar yor sa ndox di arrosé dañ leen ndoxu ndoxu teen bu mu laal liggéey bi waaye ndoxu teen man bu mu arrosé brique yi bu mu laal brique yi li ñu naan rek ndoxu teen bi. raxasu ñun raxasu waaye birig yi robinet amul géej dëkk ba nga jël fa ngay rot kan day jël attention mhm. am na la ci xamul am na ma ci bàyyi mooy lan ndax dana ma mhm. ko laaj liggéey leen kenn du fay kenn mhm. danañ fa ñëw allahu akbar danañ fa ñëw bu départ nañ danañ fa ñëw ah birig nañ ko birig yi band rek léegi ñu gàddu suñu machine. ànd ñun ñëpp il faisait quatre heures quatre heures mooy comme ça jëm kër bi. bi ñu egg dugg ci kër sang bi. mu génn ci bi ci toog ñu waxtaan ak moom jël matériel bi teg ne ko brique yi mat na. mu ne ah ñu ko mat na. la ilaha illallah keroog xalifatul aarifiin fi ànd kontaan na. toog na waxtaan ak ñun. dalal ñu ñaanal ñu. waaye am na lu ci raxoon. lu ci raxoon mooy lan. da ko mu ne teg dama lan mooy julli. bu waxoon bàyyi leen julli nga xam. kooku du wax bàyyi leen julli. ndax moom la yàlla wàcceel jumaa ji. dala doon xam dala doon xam ne yéen a si jàmm yàlla bu mag a mag a mag. waaw ndax julli mooy ponk yàlla bi gën a mag. waaw te li santaane yàlla te loolu santaane yàlla. bu la doon xamal ne yéen a ngi ci. yéen a ngi liggéeyal yàlla julli ngeen julli xam ne. bu leen ko yàlla fayee. bon loolu xamal na la ne. événement jumaa ji. ku am jot. ñu ne jumaa ji xew na nga tardé ko. jël nga ndaar sa doo sa kenn ci yàlla musal. amiin amiin amiin. Eh, jumaa ji am na événement. kaay leen fekke sa ko ku ko jiitee xalifa bi Mouhamad Nabi ibnu Mouhamad si ni xalifatul aafidu ardi nga am loo ca xeeb wala loo ca kontak yow dégg. waaw kon nag ku ko dégg ko <laughs> yow. dégg ngeen sanga Moussa. ah amul caaxaan de.

léeg-léeg khalifa bi Maulana Muhammad Nabi da koy wax sax si ay waxam lele léeg mu wax ne jumaa ji bi ko yàllay wàccee tiim na suufu si bi lan place di tefesu wakam. lan laa bëgg dege ñi dégg foofu balaa may ñëw si sanga salaam Papa Mbaye Diouf mu ngi wax ne boobu jamono état Abdou Diouf amoon nañ projet si jumaa ji fii mu ne nii. ba ficelé woon budget bi ko war a liggéey ñu waroon fa def ab hôtel. te boo waree si àddina bi hôtel yi nekk ci booru plage yëpp plage privée lay doon benn du si nekk plage publique hôtel fu mu nekk ci plage rek plage boobu waa dëkk boobu duñ ko utiliser plage privée lay doon. Mm-hmm. waaw. kon war nañ mën a dégg ne kon sanga bi ñëpp amal nañ ko njukkal bu ñu demee ba wakaam am géej boo xam ne ñëpp fa am accès di fa wàcc war nañu wax jërëjëfee Maulana Mouhamed Séni xalifatullah fil ard ndax bu fa liggéeyul woon jumaa ji plage privée lay doon te bu doonee plage privée wakaam du am géej mool yi duñu ñu nappa ba nit ñi di dem di fa sangu ñu naan beñaat autorisé duñ fa sax teer kon nag wakaam war nañoo delloo njukkal laa naa Maulana Mouhamed Séni xalifatullahi fil ardi sanga salaam kon ñu bàyyi la nit ñi nga dugalaat ñu moo xam si kar wala way après ñu dellu si waat. salaam allah ci air boobu nga xam ne laa Maulana Mouhamed Seyni xalifatullahi fil ard wax ne sunu boroom teg na ko ci benn njoowaan ci asamaanu Tuuba njoowaan bi di dem ak ñëw ci kàllaama boobu laa ilaha illa allah rabbuna jalilu yal na yàlla wéral baat bi yaax ñi ngay àndal ñépp dellu sewaat fa ñu nekkoon rek ci place bi nga xam ne sunu boroom tànnal na ko wàccee fa mosquée de la divinité ñu wax ne yàlla moo ko tànn yàlla moo fa wàccee jumaam waaye nattu bi ci am mooy géej la de nattu bi nag mooy géej la naan dafa jege géej te ku ne géej ne été am na fu mooy doon jubluwaayu nit ñi te nit ñi war a bàyyi xel ci place boobu ndax c'est pas n'importe quelle plage place la bu yàlla tànn wàccee fa juma ku fay ñëw fa wàccee orma nanga def orma nanga wax orma waxuma la juma jafa ne rek waaye ni tupp yàlla fa tëdd war na tax képp koo xamante ne jug nga sa kër ne da ngay dem géej moo xam da ngay féexlu ji wala da ngay sangu ji nga sol lu jot jàll fa jàllin bu teggin àgg sa géej gëf la la tax a nga def booy jàllaat nga jàllaat fa jàllin bu tegginu dellu sewaat sa kër ndax géej la goo xam ne la fa nekk yépp ci kanam la ko ñi ñuy xam kon nag suñu papa Mbay Juuf am na fu ñu toll woon sànq jëm ci wàllu liggéey bi sanga bi ne nañ ko jox karne bi bu defee bu ko ñi ñi yégee ne ne carnet baa ngi ci ñoom ñaar jàng naa ka ne sanga bi bëgg na kenn ku nekk def ci daraam ngir yàlla bu ëllëgee buy fay hmm. yow di nga bokk si ñi muy fay beneen bi gars yi bu ñu déggee ne ne sanga bi moo tee carnet bi kenn ku ne dina am motivation def hmm. kon nag Pambay juuf hmm. toll nañ ci liggéey jumaa ji da nekkoon trésorier bi sanga Moussa Wade wax na ne liggéey bu toll ni di mosquée de la divinité bi sanga bi jotee ndigalu boromam ne ko liggéey ko mhm. sanga bi 14000 francs la yoroon mhm. ci chef d'oeuvre boo xamante ne à la fin biñ ko estimé coût bi ay milliards te xaaru ci état yalwaaniwul bitim réew mhm. waaw kon naka ngeen defoon ba taxawal liggéey bi <laughs> waaw sëñ Ndabi si nga njëkk a wax laa bëgg a ñëw tuuti si artu bi ngay artu géej noonu loolu lu am solo la te dañuy ñaan xalifa bi di si gën a bàyyi xel di leen ko wax suñuy njaboot a fay dem ñi dëkk wakaam a fay dem waaye li tax ma ne jotaayu yàlla dëgg moo am tey su may doom ngeen su may rakk ngeen ma ñëw toog seen biir bon bu ma leen tegee su suma niveau xam naa lu tax ma ne jotaay bu am doole la loolu nga wax jooygul ñëpp di jooy képp kuy sellal jëm ci géej googu ku nekk xam na ne bu dul été sax la fay am bu ñu deful attention yàlla fàdd na fa ñaari couple yoo xam ne jaana leen matt nañ def attention foofu waawakaam mhm. ah ñi fa dëkk mhm. ñaari nit man fanaan naa foofu juróom-ñaari at parce que sang bi dama ne mënuma ko fay mhm. ba mu defal ñu jub dafa génn àdduna weer wu jot ñetti fan laa ko feenaan géej gi. Mhm. une heure ba quatre heures du matin bon xam naa lu bari si foofu. Mhm. une heure ba quatre heures du matin bu mu mat sept ans. Mhm. def naa ko. dinaa fay faral di fanaan dinaa fay faral di dem waaye ma añ nga sa wax da boobu dafa am solo foofu parce que leeru yàlla fu mu nekk niveau wu seytaane si niveau boobu lay nekk de martaba sanga bi ah lan la monument ngi fi leneen a ngi fi am mhm. lan moo ko indi martaba bi il faut mu am luy nivelé moom parce que seytaane amee doole noonu waaye artu bi mooy suñu njaboot mhm. ndigim fàdd nañu fa ñaari couple yoo xam ne kenn gi si put gi la ko jaan gi mat jigéen ku jigéen kee dee waxantuma de dëgg la dañ bàyyi géej gi buñ ko fowe ku teg bët sax si géej gi rek xam ne am na lu la yàlla wax waaw mu war nga jomba ànd fa sax di longonte jigéen te leer gi dafa metti leer gu dangereux la leeru sang bi daaneel na ay nitu yàlla daaneel na ay borom xam-xam daaneel na ay boroom àllal ba daaneel na ñu wér ñu wéroon péng weddi rek wéradi hmm. bon suñu njaboot la ñuy waxal nii géej nañ ko moytu hmm. bu baax du fawukaay wéet faax sa ka nga bëgg a takk mu mu bëgg lay takk soxna sax boo distance sanga bi lañu jël bon pour ñëw loolu sa artu boobu dafa dugg parce que yàllaay waxe si yéen rek dëgg la bii du bësu caaxaan dëgg la bu ren bii nag beneen la mhm. parce que jël nañ koy góor yàlla bu yàlla nangul mhm. si a cheikh mhm. muy bàyyi ñes ñu dénk ko jox ko bés boobu te koo xam ne cëram weesu na cër yëpp ku nekk yàlla moo lay may xalifatulaay faat di dégguñu ko ku ko fi oote woon tamit te mu am ay firnde ñu topp la mhm. parce que bu la topp ku la toppul weddi nga yàlla mhm. bon cër boobu mu oote ba xam ne bi mu jotee mission bi dem na si këru diine yépp nuyu ji leen mhm. wàccee boppam toogaax ñoom ndokkee leen ñëw toog si këram bon ku fi dellu si rek yaa ngi koy fay njukkal ci la mu ñëwoon fekk si la bon këru de bésu góor yàlla googu ay waaye nañ fa ñëpp dem ut fa yàlla bàyyi ñes am na góor yàlla lu

parce que ñun ñoo ko uuf boot ko si finance ma imam Bada ba mu dem ñu féetaloo ko askan bi booba ñun amatuñ possibilité. ñu laaj kenn waaye lañ doon def ñun si suuf wallaahi sang bi mu ngi tëdd. waaye ñun xam naa ne yóbbu naa fa ay nit ñu fa dugal seen alal. sa jamono te xamuñu ne man maa leen fa yóbbu. bu ma la ko dee am na kilifa boo xam ne directeur assurance la woon. dafa ma gis am na at boo xam ne dafa daje mu ne ma. yéen xale yi leer gaa ngi wàññi ki seen kanam yi de kanam gëma yama daan gis mm-hmm, mm-hmm. parce que nit dañu seetlu di dëgg la jikko yi tamit dañ ko defar dëgg la sang bi li mu doon dundee buñ ko dundewul tamit leer gi day dañ suñ kanam ah, parce que kooku bu demee ba wax ma lool keroog li mu génn mu ne kat yow day man chance bi nga ma may mm-hmm. jumaa ji ñu bëgg commencé liggéey bi nii lii maa ko jël pour jox ko si joxe ko si jumaa ji léegi laa ko jot fenn ma dajeex yow mu ngi dajeex man sama booru kër booba kenn kër yi kër yi amaguñ foofu yu bari kooku directeur banque ak directeur assurance la woon. Mhm. daan na leen indil ay mburoog yooyu man maa taxoon. Hmm, ndeysaan mais kenn xamu ko. Mhm. ak yeneen i nit yoo xam ne doon lañ def si liggéey bi mais ñun dañuy dañuy dem rek xëcc mbaal indi si sañ sang bi. Mhm. Euh, l' avocat boobu nekk si kaw géej ñun ñëpp ñoo daan maax imam ba dañoo daan def. moom sang bi moom waman yattaxi laaha yaj'al lahu maxrajan wa yarzuqhu min haysu laa yahtasib mu yoon takal alallaahi foofu la doon dundee. moom la dundee si 14 ans moo tax xaaru woon

yaay ji nekk fa yooyu yaay jee ko o fen na ne mm-hmm. ñoo doon ñëw di def di def di def si seen alal mm-hmm. te sang bi ko laaj mm-hmm. am ñoo xam ne ñun fekkewuñu parce que buñ ko koy jox duñ ko fekk am ne bu ñu waxee ñoom ñu nekk ay kilifa yu si war dañ ko sang bi parce que dafa sutura c'est-à-dire que kon def ñu def seen alal si jumaa ji de passage dañuy jàlla def dem sa yoon dem sa yoon am na ñoo xam ne dañ ko teg bët am na koo xam ne yaayam làkkat lañ nag yaayam moo moo doon doxantu rek si kaw tund bi foofu seen mosquée bi ñu koy liggéey mu laajte ay renseignement rek ne doom ji loo man def ko si ah, waaw c'est-à-dire dafa am loo xamante ne dafa amul suivi mhm. waaye bii bi xamante ne chérifu Maroc bi ñëw na yaa ni boobu fi ñëwoon mhm. ñoom ku mel ni sang bi lañu doon wër mhm. mooy xew woowu ngeen déggoon chérif bi ñëw fekk secondoyen waaw passage sax ñu ngi suñu euh, cheikh bi Eh, imagine bi salaam yàlla yàlla def shifaawu amin amin amin amul lu mu liggéeyul si liggéey ma papam bi mm-hmm. man man naa ko seede parce que suma kër la daan lañ daan nekk di yendu di toog di waxtaan et mm-hmm, mm-hmm. lu ne def na ko ci kattanam yàlla na ko yàlla yëkkati defal ko wér ak liggéey bi nag noonu la demee gis nga ku ne la man maa doxale nii ba mu defee nii sang bi sa daf si màndu woon si boppam parce que moo taxoon am poche këram ak poche ba te du la leeral dara de moom mandu teem sax àgg na si yow yaa ni kaa sang bi maa la dimbalee lii mu xam ne loolu poocam mais boo ko waxul dara bu jëm si musi mu def ko liggéey bare bàyyi këram koo xam ne da doon inondé di seen di seen ci nawet waaw kooku bu ne la mandute iman islam ihsan alxuda ñu ne si tomb xuda bi si baa boobu ah, si tomb baa boobu le rouge nekk mhm. moom rouge boobu dafa am lu mu wax. Mhm. nabila yi nag bu ñu foog ne jàlla nañ de. parce que mhm. sang bi. njub gi njub gii mu wax. Mhm. iman islam ihsan ku ñu gis si nabila ngay xuloo ka yàq ak këdën këdën dañ la tegagul un exemple de. ñoo si war a njëkk de. nañ si jëkk jaamu yàlla waaye spirituellement. amoon na ngëm-ngëmu wàkkiirlu suñ borom ba jumaa ji kenn mënu la wax ne la nii am na nag ñoo xam ne duñ bëgg sax ku leen tudd. ñu yoroon poumon wu liggéey bi muy dox. donc mhm. liggéey boo gis yéen tamit je tiens au passage. nga defal ma ko loolu maa leen xàmmee yéen jëf. Mhm. xam nga nitu yàlla xoolal li mu def. Mhm. jël jëf xam na ñooyu du ñu bàyyi ay seen alal lañ doon cotiser. di ko di indi di ko dundal la fii. te ku jël sa dërëm dugal ko si liggéeyu yàlla bii di nga ko di ko gis de. dëgg la waaw bon nag. Euh, loolu nga laaj ndax naka la doon demee. am na ñu joxe alal. te man ak Imam Bada ñoo daan fexe ba. ñu jox sang bi mais duñ ci feeñ mhm. am na ñoo xam ne dem nañu sax ay kilifa ba ñenn di leen seeti ji mhm. parce que foofu dañ dañ déw di fa joxe seen xaalis joxe seen adresse ñu leen fekk mais ñun ñoo taxoon mhm. waaw parce que sang bi li mu ñu jàngal yare ñu ko yàlla foofu su ne lay moom nga xamante ni lañ fi tudda nii waaw mag moom Mouhamed Nabi Alaaji Mamoun bi ñoo ne màggaloo si benn li ñu fa moom tamit daa mel ni jàmbaar lool lool ci mission bi moom Mor Leye. Ah, mais nit ñi xamuñu ko nag. waaw xam nga xamuñu ko xale yi ñoo màgg nii diggante bi. fa oh, oh, oh, nga doon jour spécial. parce que Mor Leye maa ngi dégg ngeen ne da ngeen koy am lu ngeen koy defal. lu am solo moom dafa génn dafa teel a génn àddina. moom yaa yàggul loolu sax. Mm-hmm. su ma mënoon la man tudde naa ko doom sax. ndeysaan baraag bi ngay gis nii. boo déggee ñu wax ko baraag bi. Mm-hmm. ñun dañ daan toog papa Mor Leye foofu mooy woon suñu toogaay dañuy toog di waxtaan rek sang bi bu ñëwee rek na cak dugg dem si néegu si si pap pap Mor mhm. waaw yéen daam lay la daan nekk mhm. toog moom di waxtaan ak moom noonu ak moom la nekk mhm. waaw bu paree rek na cak waaw mais ñun ñu xamoon parce que tey bi muy jéexal liggéey bi man la jëkka laaj si kër gu mag gi mu teg ma fii suma kaw génne ay pièces xaalis jox ma ko ñoo bi muy bi mu nekkee si feebar ba tëdd ma dem seeti ko mu ne ma Babacar jox naa leen autorisation ngeen laaj alal fu ne si àdduna bi. Mhm. loolu day ñëwi ji de. xaw ma nag xale yi ñoo koy liggéey. moo tax ma ne ngeen góorgóorlu nga. commission organisation ko àggoo. maa leen tënkoon. Hmm. léegi tekki naa la fépp. lii moom moo ko mu ne ma yéegal Mamadou Samb ak Mbaye Ndoye ñu ngi si kaw. Hmm. a Hadj Mbaye Ndoye ñu ngi si case bi. Hmm. demal nga waxtaan a ñoom parce que boobu dama génn dama ko benn génneel benn idée boo xam ne ci lañ ñu bari génnoon waroon a génn daal dara weesu si nag ndaxte lii mission sang bi suñu bakkan lañ ko laaj dañ ci gar parce que loolu ku la defar ba nga set nee naa leen nit ku buñ ko def kii dafa defar nit ba mu set tabax géej te bes néeg si biir géej defar nit a gën a metti waaw tabax tabax ni néeg si biir géej. defar nit a gën a defar gën kii. bon sang bi benn nit bu mu defar rek war na mën a nga xam ne kii nitu yàlla la. waxuma laa ñaata nit la defal si at. Mm-hmm. Mm-hmm. bon te nag li si nekk secret sax euh, bu ngeen góorgóorloo sax xam ne secret ngi si. tey jii yaa ngi nii kay na laa docteur. Mm-hmm. waaye li ngay faj mooy docteur rek. waaw <laughs> yàlla na nekk docteur. amiin mais ñun dañ dem ba mu jigi suñu àdduna sax nii mu ni ko yàlla doon defaree. ak personnalité bi ngay am. Ah, ma dunde naa banque centrale 30 ans école bi doo dégg jigéen boo xam ne dana Mbaye Diouf mii mas naa ngoro moom lan la sanga bi moo tax bi mu génnee àdduna te boobu xaalis yomb na la ah mais banque centrale da nga ma bëgg a ubbi rek <laughs> mais beneen yoon dinaa jàngal ñoom sanga <laughs> ah ngeen di ngeen di ute xaalis. duñ fa dugg ah. waaw dinañ il faut que. ñëw dinaa ñëw il faut que ñu il faut que. sanga bi dina ñëw. sa kër incha allah rahmaani voilà incha allah man sàkkuwuma ko man li ma ñëw fii tey. boo gisee ma ne baatin la mhm. wax naa fi lu tooyal xel mhm. wax naa fi lu nit dégg wax naa fi kii te sàkkuwuma ko looloo tax ma daal li léeb lool parce que man taxaw du ma neexalu ma kenn ki so imaam ki ki xalifa bi mhm. tan sagar daf ko liggéeyal dama koy wax keroog si kër Pape Ndéné li si tuuram ma ne njabootu Pape Ndéné soxna Astu Mm-hmm. ak seen képp koo xam ne si deretu sang bi la mm-hmm. la maam suñu maam Khadija mm-hmm. liggéeye loon bi sallallahu alayhi wasallam jël alalam ak jëmmam jox ko yonent bi loolu la Tànn Sagar def jox ko jox ko sang bi quatorze ans donc ñoom koo seen si ceebootu sang bi sax ñun dañu dañu amul ak sëriñ rek dañu amul ak taalibe waaw mais ndam ndam surtout sang bi sax war nañ ko toppatoo waxuma tànn ci mm-hmm. soxna mbayam bi nga tudd mm-hmm. fii ak soxna màngaan mm-hmm. effort yi ñu def xam naa ko elle était une banquière seen suñu yaay soxna mbayam mi elle est une banquière ni mu def si effort soxna màngaan ak waxuma na tànn sagar nag moo leen jiitu waaw moom dafa def taxawaayu jël na ciru Khadija booba parce que moo liggéeyal yonent bi quatorze euh, ans waaye euh, doomam nekk si xilaafa dëgg la na lafal ko cet amiin ko boppam ñun dey suñu amiin suñu kii la. ah suñu sakk la. Mhm. parce que nit boo jiitoo. jiit meexul de. jiit moo metti wér na mais yàlla na jiit lu yàlla tegal boppam. dëgg la mënuñu si dara. dëgg la yàlla na yàlla lépp. amiin mu ngi noonu kon suñu papa Mbaye Diouf la mu fa mu jaar ci wàllu gestion si jumaa ji ci wàllu finance si sanga bi. Euh, nga gis ne ne Maulana Mouhamed Seyni bi mu songee liggéeyub yàlla bi këram mu ngi senn. te moom Maulana Mouhamed Seyni masul nangu këram sut jumaa ji masul nangu këram gën a rafet jumaa ji mosukaa nangu sanga Moussa ñu dugg ci liggéey bi comme waxtu bi xaw nañu tënk waaw balaa ñuy ñëw si Moustapha Gueye Gueye euh, nga duggal ñu rek si tënk euh, jumaa ji biñ ko tàmbalee liggéey ba si achèvement bi euh, lii la si gën a marqué étape yi la si gën a marqué

bokkaax jëmma yii man boobu tout tànk laa ndax man maa ngi fàttaliku bi may ñëw di liggéey si si jumaa ji maa ngi primaire école 1 mhm. ñu def double fixe nga nene ne ne classe bi dañ koy diviser ñaar nyi ñoo jàng bëccëg ñii ñoo jàng ngoon su ma su ma bi damay xëy dem géej ànd ak papa bu ma ba sama heure jàngi jot mu andi ba tali américain si croisement bi mu jéggil ma ma jaar si yoonu marché bi nga xam ne du ma du ma gisaat tali ba ker baa ma yëg si suñ kër jël suma boot dellu école mhm. kon ñun boobu ay xale lañ waaye fekkee nañ mhm. waaye yéen ngeen tollu woon doonoon <coughs> mhm. ay boroomi soxnañ si ñenn ñi sanga bi ne leen liggéey bi amul fay te ngeen doon ay soutien de famille wala ngeen denc soxna ba am doom te war a dem di xëyal yàlla si place boo xam ne juróomi at la juróomi weer te kenn du la jox salaire loolu nu mu demee woon ah waaye xam nga comme que li ci des bariwul ci temps bi dana jëfe ñu tëgg ko waaye nag ñu boros ci tuuti rek beneen yoon bu tasee ñu yàggale li mu dul jeex comme que briques yi pare na mhm. fun jëm nan gasi ji gasi mhm. ah ah bàyyu ndey foo jëm ne demal tabaski ji amoon na borom kan la mhm. fi Abdou kamba 5 des kamba 5 cinq personnes 5 dugg ci biir cinq ñooy picca 5 cinq pelles hmm. cinq duggaat cinq pelles. Vous on boo ci montagne bi di ñëw boo bëggee xam fan la Cheikh Cheikh euh, Abdoulaye Diouf bu ko ne mu ko si kàpp ko. wallaay dëgg suuf soosu di sànnee ko ci peel. jot sa kaw di génn. Hmm. mooy ci bëggoon ñëpp. naa waaye màgge togg. bon ah, ah. nag nga waaye mu ne wax sa màggati ko. waaw tuur peel ay mu dem bàyyi ndey foo jëm. Hmm. demal tabaski ji. Hmm. waaye am na koo xam ne da nga wax a bala ngaa na. waaye mbaayee nga ca kaw. bàyyi nga teg ko ab la ba la ngànn bàyyi moo da koy bàyyi faal la allahu akbar kooku moom beneen mbir la borom jumaa ji kooku mënu ma wax ci moom mm-hmm. beneen mbir la parce que dañ fiy fanaan beneen yoon <laughs> damay wax ne gis naa ngëm gu ne moom da koy ko teg la bàyyi ma mu mm-hmm. duggee ci moom dañ fiy fanaan moom rek émission la émission la mm-hmm. ah bi ñu commencé ci gas yi kàmba yi gas bi dafa yéemoon ni ma dafa amoon boor bu dëgër ak booy bu nooy fu nooy fa dinaa tuddee xaal bi xaal waaye fu dëgër fa pique bu ngay jërum kang mu naa naan kang boo ko dee kang mu la kang ngay kanti kanti ak moom ñooñu ñoo naan gas kamba benn kamba da ngay gas euh, euh, euh, di nga am benn jour am moitié moitié kamba gi moitié kamba bu ah. ëllëgee nga yëkkati ah kamba yooyu ni foos la tolloon hmm. set kamba gi daana def ay kamba trois mètres hmm. sur deux ak hmm. profondeur bu nekk léegi door a ñëw sur deux mètres

bële bële miir nañ ah, marché nañ dóor ki nga ki nga ki nga toog sa kaw doom duñu xool ab dee ab laa wax de ab dee kese mu dëng lépp daje fa rënjëx rënjëx rënjëx rënjëx suba ba ngoon mhm. ñuy door jot feer ba nga xam ne liggéey boobu bañ affaire mhm. kon liggéey bi dafa foofu dafa xawoon dëng ngeen war Aziz ajusté waat ngeen tojaat li ngeen liggéey xam nga da ngay am ay fil yooyu tekk waaw pour pour ajuster mu dëng am ko lonk benn fil nag mu lonk ci benn kii buy jéggi xam naa rek laal te tey ko mu dëng mësul mësul nangal mësul nangu sang bi moom mësul nangu lu dëng sang bi mësul nangu lu dëng sang bi na jóg na fi na ngeen ko na sama te yi taxawu fa de amuñu yi te na fi mm-hmm. na mais kenn du xam fu mm-hmm. nit mm-hmm. du nit déedéet ay yëfam lay def. soo bëggee yaa xam. Mm-hmm. boo bañee yaa xam. maa tey nangul sanga bàngoog. sanga bàngoog. waaw waaw bër. gas nañ kamba yi. ci gàttal pare nañ. mu mm-hmm. des léegi. dañoo war a lekk léegi. waaw am na benn anecdote boo fàtte bi ñuy bi ñuy bi ñuy commencé gas yi. Mm-hmm. gars yi dañoo indoon benn tracteur pour mu ñëw gas. si sa jour la paan. <laughs> waaw gis nga ci de waaye dimbal na ma. muy wanee ne machine du ko liggéey. tracteur bi gars yi gën a gaaw. monté charge sax année avant monté charge maanaam. di teg ay briques di ko monté machine bi yéegee. waaw <laughs> benn fan la fa xamu ñaari fan. gaa yi ko mën. <laughs> te nag doo xam ne lay yéex ah. ay nit yu man machine. ay nit yu mën machine doo xam sax lan la. Hmm. doy na waar <laughs> sama waay kon lan baa ma dëgg. yàllaa ngi noonu. jumaa ci boppam ku dof dof lu bañ na jumaa ji xew leen nga toog sa kër yow xamoo foo jëm. ah sant yàlla. ah ñu laaj ko yàlla. xamoo foo jëm. ah xalifa bi Muhammad Nabi ibnu Muhammad si ne xalifatullah fi ardi yow dañ lay bëggee suñu sang nga waxal ñu def tereel ñu ba yaay Sini Muhammad Sini mooy yow lu gëm la te dëgg ngeen baal ñu wax asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu na waxam wax kon euh, ñu ñëw si alaaji Muhammad Moustapha gay. bés bu toll ni yàlla ko si ndigalu bi ay xale lan moo tax choix sanga bi si waa jëf len leen bi pour ñu màggal ko jëf lan la marqué won ci jamono jooju empreinte mu ba tax sanga bi jël bés bu toll nii ñaari bés yi nga xam ne sanga bi bayina na ko fi dénkaane ko mais yi yeneen bés bu leen neexee nañ ko bàyyi waaye ñaari yi primordial par la force dañ ko war a màggal ndax ndigal la ci boroomam ñu war ko màggal mu jël bu toll ko jëf jëf lan lan la marqué woon ci empreinte ba tax sang bi jox leen. waaw euh, moo xamal la tuuti ci historique gu jëf nu mu demee. Mhm. Euh, c' était en 1996 su ma juumalee 96 97 avant ñu commencé jumaa ji. Mhm. Euh, moo bi salaam demee Allemagne ñibbisi. Mhm. bi mu ñibbisee ñu toog ndóoyeen nii. avant ñuy finir jumaa ji. avant ñu finir jumaa ji waaw. waaw avant ñu finir jumaa ji mu ne moom daal dafa bëgg léegi. ñu ñu jëmmantal sang bi daal ñu ñu féete sang bi foo xam ne daal di ko jëfal rek lépp lu mu soxla ci wàllu doole ñu war ko jëf ñu nañ taxaw ñun ndaw ñu nañ taxaw di ko jëfal noonu noonu la mbir mi démarré ñu commencé nag def ay kuréel di jàppale taay ñoom chef yi chaque année ñoom daan jëndal sang bi xar mhm. ñun tamit ñu commencé ñu ne ñun tamit il faut ñu ut benn xar mhm. di ko di ko ko dooleel roy lu baax waaw mhm. noonu noonu noonu noonu la jëf tàmbale lépp lu yëngu boo xam ne dafa am si mbooloo mi ñu ñu ñooy taxaw en premier en première ligne. Mm-hmm. Mm-hmm. fekk boobu nag boobu xam nga yaa ngi wax naan gars yi dañu amoon soxna ay bi ñu commencé liggéey jàmm bi ñu liggéey jàmm gars yi salbataire la ñoon de. waaw waaw waaw am nañu si am kattan. waaw <laughs> am nañu si amoon am nañu si amul. kattan lañu amoon boobu am ah, doole. man ah, ah. boobu maa ngi doog a dem jóge Bango. ndeysaan janvier boobu nu ñu koy commencé nii. Mm-hmm. si laa doog a jóge Bango. est-ce que xam nga ku doog a jóge Bango ku boobu. waaw waaw da ngay feros. waaw waaw noonu la demee. ndeysaan donc 96 boobu si lañ commencé. yëngatu si ci ci booru sang bi. ba pare nag salaam nañu xamal nañu fépp fu sang bi di génnati rek nañ ko jëmalee foofu la ñu mm. commencé di di sekaral sang bi mm. fépp fu mu mënti dem noonu la mbir bi demee mm-hmm. donc ba mu ba mu ñuy jox tamit euh, liggéey jumaa ji tamit euh, mm-hmm. wàccatu jumaa ji mm-hmm. si si siège siège boobu la demee d'accord waaw ni ko Mbaye Diouf waxee sànq rek xam nga mbooloo mi dafa nekk euh, affaire bu affaire xaalis dafa nekk lu doy waar bu événement bi daan jot dañ daan jël carte yi di ko jox mbooloo mi mais boo boo waree di ko récupérer doo jot dara sànq mu daal jékki-jékki rek woo ma ñëw mu ne ah diw jaar na fi jox na ndànk te ñoo ko joxoon carte yi de mu ne diw de tàngam jox na nàngam sama loxo la ko daan teg maa ko daan jël ñu defal événement bi boobu yaa ngi nekk tout jeune boobu ah si ah, gars foofu ah, maa doon doxal mbir yi daal ah, donc pour wax importance bu bés bi rek mhm. ni ko Moussa Wade waxee ne képp ku dégg ne lenn la xam ne sa jumaa ji mhm. na si nan si na nga si sa tàng tubéy mhm. am na kuy waajte laajte léegi naan historique gu historique gu xadara bi mhm. euh, ñun organisation waa jëf Xalifa Gueye si boppam moo moo moo initié wu ne euh, nañ nañ jox euh, nu tudd sax waa kër Mame Baye xadara bi mais bi ñu ko doxee bi nga xamee ne dem nañ si Baba moom mu woon ñu jox ndigal foofu lañ jàpp war a jàppee bés bi ma ne leen comme comme événement sang bi wàccatu jumaa ji mhm. dañ koy célébrer le le 7 le 8 juillet mhm. te ajuma bi ko jiitu noonu mën mhm. na ci def xadara bi comme jumaa ji ajuma la wàcc guddi ajuma la wàcc ajuma bi war nañu ko mën a dundal ah, te sang bi dafa dafa fonkoon bésu ajuma ba ci bi ni mu tawatee boo ko naan den seet si nii man su ma daan ñëw bokk suñu julee ajuma bor moo ñëw fa li ma njëkk laa ndax jumaa ji fees la jamono yi mu tawatee te ñëwatul si jumaa ji te ñëwatul si jumaa ji da doon dafa doon yittewoo jumaa ji mhm. te bésu ajuma ni ma ko waxee sànq bésu ajuma dafa nekk bés bu crucial boo xoolee ñun yaa ngi fàttali laissez-passer yi mhm. xam nga liggéey nañ jumaa ji bu jumaa ji jeex bi ñu koy ubbi 97 mhm. euh, xam nga sax nga jox laissez-passer jour boobu de dimanche boobu euh, mercredi 4 euh, premier mai 97 sànq bi joxoon ñu laissez-passer yi mais bi ko suñu borom joxee ndigal pour mu julli ajuma le le 28 mars 1998 yéen a ngi bi ñu julee tàkkusaan ba pare bi ñu toog nii ba mu jëlaat micro bi. Mhm. si naa wax ne toog leen tuuti rek ngeen taxeerlu. xaar leen nii malaaka yaa ngi nii tiim bu àgg bu ñu àggalee ku nekk ñu teg sa sa loxo la laissez-passer. laissez-passer waaw. Mhm. yéen a fàttali loolu. Mhm. ajuma la woon te. boo xoolee si ajuma ajuma. ajuma tàkkusaanu suuf. yooyu yëpp boo ko xoolee. ak xadar bi fi ñu ko dugal. te wax naa fi léegi sax ne na nit jullit mënul tudd baat bu ëpp laa la illallaah ci kaw suuf mënul ne mënul te bu fa toogee di sikar lu wax laa ilaaha illallaah rek la ñuy wax. kese kese. té dafa am ben jangal bu ma ci def. bu ma ci def temps euh, barki bërki dem rek laa di ko xalaat. Mhm. xam nga drapeau bi. Mhm. vert blanc orange. waaw or bi. Mhm. te bo xolé ci révélation bi. sang bi euh, euh, mars 65. si la jot mission bi. fin mars. mais bo xolé ci révélation bi. drapeau bi mi wacc le 15 février. sang bi avant muy woote. avant muy woote ñu ko jox mission am da ko suñu borom jox drapeau bi lépp a mat mu ngi soog a woote mhm. te te drapeau bi mu koy samp mhm. woote na 77 mhm. ba 2003 mu jàllale mission bi yëpp ba 2002 xam nga si la waxee ne li ma leen waroon yow jot yëpp naa leen ko après si 2003 xam nga si la samp drapeau bi ne bu leen ko dindeeti na na na samp te xoolal drapeau bi vert blanc orange te mandargo yooyu yëpp day day day mandargo si jour xadara parce que bi ñuy bi muy ne drapeau bi nañu ko defar mhm. benn tabaski la woon ñu jël ko xar mhm. bi ñuy dem mu ne suñu borom jox na ma digal ne nañu nañu samp drapeau bi mhm. mu ne bu tabaski passé ngeen ñëw moo wax leen naka lañu koy defaree mu ñëw mu wax ñu distance bi par non 210 mètres 210 centimètres 80 mètres largeur largeur bu nekk 80 mètres 80 centimètres mu ne expliqué ñu mu ne ñu vert bi mu ne taxawaayu l'islam la Mm-hmm. mu nañu ñu blanc bi. Mm-hmm. maanaam wax nañu bokk ci sel ba ne ñu c'est le symbole de de de la pureté. Mm-hmm. et de l'esprit xaw ma kii antenne xaw ma sel de. la waaw xam nu am nu mu ko waxee. bu ñuy bind foofu. laa ilaaha illallah allahu akbar. beneen bi. soo xoolee ci révélation dafa mel ni sax dañu ci blanc rouge. waaw mu ne ñu du rouge orange la. or la ci axiru zaman. mu ne ñu mu exemple mu ne gis nga jant bi buy so tàkkusaan buy so. mu na couleur boobu noonu. mu ne couleur boobu la. mu ne si si la suñu boroom def biddiw bi biddiw bu xonq bi ah, bu verte bi mhm. mu ne biddiw bu verte bi mhm. mooy biddiwu l'islam bi nga xam ne moom la suñu yonent yàlla Mohamed woote woon ci penku mu ne biddiw bu xonq bi mooy biddiw ragal yàlla mooy biddiw Mohamed Seen te xool xool xoolal jour xadara bi mhm. vert bi <laughs> mu nga fa ci jumaa ji cool gu weex gi mu fa te xoolal xoolal weex bi sax sëriñ bi ne laa ilaha illallah allahu akbar laa ilaha moom la ñuy sikar allahu akbar boobu xoolal moom nee na bi mu wàcc bi ko suñu borom di woon jumaaji ji bi mu wàcc jumaa ji nee na bi mu wàcc ba ñëw ba jumaa taxaw moom dafa wax allahu akbar mais bi mu ñëwee ba tourné si jumaa ji dafa gën a bind encore allahu akbar ci mbindu or mhm. ba pare xoolal couleur d'or boobu mu wax noonu mhm. te mandarga boobu day mandarga si asamaan ci waxtu woowu bés bul jant bi di lang moo tax moo tax bi cheikh bi ne bés bi bés bu bu yéeme la na bés bu yéeme la mhm. te li si nekk yëpp kenn mënu la ko wax yàlla xam na loolu dëgg la waaw ñu si oo julli yëpp nag kon nag ñu ngi si oo bés boobu julliti yàlla yëpp muy bés bi nga xamante ne moo jiitu samedi boobu di le 8 di vendredi incha allah le 7 euh, jotaay bi nag liñ si namoon yëpp ñu ngi sant sunu borom ni ñu ko sunu borom defale ndax jaam moom sabablu rek yàlla moom moo moom ndogal ya bés boobu la set incha allahu rahman te boo xoolee ndeysaan si plateau bi moo déclenché mooy mooy li nan élément déclencheur khadara juma jooju bi ñu invité suñu oustaz ababakar Ndiaye lim fi wane ci xam-xam ak si taxo sang bi ak magi magi magi dembay yi mhm. moo yee suñu papa Khalifa Gueye dëgg la dëgg la ci mu gisanteex oustaz ababakar Ndiaye bañu ñu euh Cheikh Baba Lamine Cheikh Baba Lamine ba mu gis xalifa bi Cheikh Mahi ñas kon nag ci fii lañuy ñuy oowaatee julliti yàlla yépp ci xadara boobu mbokki jullit yi du ña sax mbokki ñaseeni waaye mbokki jullit ñi waaye waa kër Cheikh al Islam Maulana Cheikh Baye Niass am yéen a ñëw vendredi mosquée de la divinité def xadara juma ci place boobu waaye ñoom seen yéene bu kawe mooy dañ fiy julli se juma bàyyee ko fole ca kaw la si seen ay muxaddam yi nga xamante ne ñoo ŋànka tarixa bi nga xamante ne moo di fay euh, faydu baay ñëw fii jullindoo ñun juma dellu si kër xalifa bi Mawlana Mouhamed Nabi ñenn nañu oustaz Ababacar Ndiaye daloo leen ñu añee foofu noppalaku ba tàkkusaan daal di dëkk ma laat nag mosquée de la divinité waaye xadara boobu it mbooleem koo xamante ne muxaddam nga te nekk si dakaar yor ay nongu yoo xamante ne boo ne leen def leen ñu def wala bàyyi leen ñu bàyyi seen kilifa yépp nee nañ na ñëpp jublu mosquée de la divinité ca waxtu woowu di tàkkusaanu aljum xamal nañu sax ne am na benn doomu Baay Ñas ki nga xam ne moom moo yor euh, seen université yi waaw moom tam allah dina teew kon dégg ngeen loolu ki nga xamante ne moo yor université Baay Ñas yi di doom ci bàyyi Ñas moom dina fekkee xadara boobu sëtamit dana ko fekkee mu di doomu Baaba lamin Ñas waaye muxaddamam yépp dana ko fekkee waaye ndax ñaseen yi rek la déedéet salaatul fatiha képp ku ko yor tijaan foo ko mën a yor ñu ngi lay ñaan nga ñëw ci place boobu waaye dégg nga Moustapha Gueye nga li mu wax mu ne bu ñu fa teewee leen benn baat moo fay dund mooy laa ilaha illallah te yaakaar naa ilaha illallah yëpp ko moom kon yëpp lañ fa oo ñu bokk fa daje colin gu weex màggalandoo turu yàlla boobu ci palaasu yàlla bi yàlla tànnal boppam ngir yàlla wuyu sëñ te yaakaar naa bu ñu ko defee noonu de yaakaar naa dinañ ci jëlee ndam. incha allah te yàlla nañ suñu borom may ndam. te bu nu demee nag sa ëllëg sa nag nga xam ne ne mam waa jëf ak mbooloom Nabila yëpp am nañ yéene màggal anniversaire wàcc teg jumaa ji bëccëg bi incha allah dinañ ibbi xabru Maulana Mouhamed Seen waaye bëccëg boobu it incha allah dinañ dugg si biir jumaa ji jàng tëj ko génn ziar xabru bi def fa ay teraanga toog nag ba 15 heures ñun ñëpp ñu ronu tànt bi xaar xalifa bi Maulana Mouhamed Nabi yàlla naka yàlla yokk kàttan ak wér ba mémbétam si mission bi mu yeggali ko bu ko defee ñu ñëw lafay fay zikru laa ñu zikar ka fa la waxtaan ñu waxtaanee ko ba ker xalifa bi jël doom waxtaanaa jullit yi waaye ñaanal leen yàlla waaye fii réew mi toll nii kat jar naa ñaan ngir jàmm ji ñu xam yàlla saxal ka fi te am nañu yéene o yàlla ci place boobu donte ne nag xalifab yàlla bi nee na jamono bii du jamono ñaan nee du jamono jàng alquran nee na du jamono sarah kenn ku ko defal sa bopp yiw bi nga koy am ya koy am waaye du loo xamante ne da def pour yàlla jox solution jamono mu ne kon solution bii di solutionné jamono mooy ñu jub ragal yàlla te sellal te waxtaan bi loolu la tënk kon nag ñu ngi gërëmaat suñu papa ju baax alaaji mbay juuf dig nañ la ngan danañ ñëw sa kër ci émission jaar jaaru sanga bi defaax yow waxtaan incha allahu rahman yal ci sunu borom yóbbu si jàmm di la gërëm si sa teewaay di gërëm sanga Moussa Wade si disponibilité am sànq ndeysaan maa ngi ko fekk géej mu tegoo ay coono yu metti ngi naa maan nabi sax émission bi bu ma du mu fa ñëwee bu ma toogee damay nelaw dama nekk ndeysaan waaye da nga ñëw rek boo ko defee nga mottali sa yéene sanga Moussa Wade noonu la ñëwee mottali na yéeneem Moustapha Gueye nga moom itam instant bi garde law ko waroon fekk instant bi dafa waroon liggéey nii waaye ndeysaan ci bëggam mission bii nga xamante ne moo ko jaral lu ne moo tax mu teew fii te it dawul liggéey pour ñëw fii waaye dafa jaar fii mu war a jaar pour mën a ñu occuper ko fële le temps mu ne fii kon loolu ka ko sanga bi jàngal te loolu la wane kon moom itam ñu ngi koy gërëm di gërëm képp koo xam ne yaa ngi doon topp émission bi di gërëm sanga salaam ci zikrullah yu neex tegu ci yoon yi nga xamante ne moom lay génnee ci kàddoom ñi ñi di si bégee seen xol di si bég seen ruu di si bég ak ñi nga xam ne ànd naax ñoom yépp Mamadou Samba Moussa handoi, euh, Alsane Colonel ak ki nga xam ne mooy Tamsir di gërëm nag ñi nga xam ne ñoo topp commentaire yi di commenter ñoom ñëpp gis nañ seen i commentaire si YouTube bi waaye ak si Facebook bi ak itam waaw si si si si WhatsApp bi message yi ngeen may envoyé Mara Ndoye ñu tuddala si ndax yaa ngi topp émission bi di ñu jox ay message yoo xamante ne yu ak ay information yoo xamante ne ñu ngi koy jàllale si biir suñuy kàddu kon jërë ngeen jëf ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di màggal ñëpp jox ñëpp seen wàcciwaay lii lañ leen OTV andiloon ci bésub tay bi ngir waajal événement bi nekk sunu kanam di la descente spirituelle de la mosquée de la divinité kon plateau bi li koy yëkki mooy salaamun minallahi ala séene ñu bàyyi si karkat yi jëlaat ko incha allahu rahman bismillah asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.